ci aju waaye mbakar fekk wi nga xam na ni am nañ ko ci euh, guddi googu euh, muy kenn ci njabootu Cheikhuna Ahmadul Xaddim nga xam ne moo nekkoon cëram euh, mu yeggale ko foo xam ne ni ci réew mi ak bitim réew mu yaatu lool ñuy ñaan suñu borom dolli ay leeram te taas na ci barkem muy soxna may munatu Mbàkke bintu xaadimu rasul jàpp naa ne tey fu laylatul xadar yegg rek ci réew mi ba ñëpp di ko taxawu rek soxna may loxoom moo ca nekk ak fédération daayira yi nga xam ne ni euh, ñoo nekkoon ci ginnaawam àndandoo moom mu di ko def bi fi njabootu Serigne Touba Xaadim bi nekk amoon ci ndigal lu yaatoo yaatu mu dem ba mu yegg foo xam ne ni euh, ñëpp a ngi koy def di ko dundal waaye nag di ko ci fàttaliku di ko ñaanal ndax lu waay mën a wax ci àddina soxna may benn bis la am ci àddina euh, muy laylatul xadar ak màggalu Touba. ci kaw loolu nag ñu ngi ziyaare baax sëriñ Serigne Mourou Mahfous Mbacke mi nga xam ne ni. Euh, moo fi nekk di ko ñaanal yàlla euh, yàggal ko fi lool te mu wér may ko mu yeggale li mu bëgg liggéeyal Serigne Touba ànd ko njabootu soxna may mënatu gépp euh, di mu soxna Assu Mbàkke soxna su Baali waaye di ñaanal doomam yi nga xam ne ni taxaw na ko taxawaay bu am solo muy soxna Baali Mbàkke bintu soxna may mënatu nga xam ne moom it def na ci liggéey bu am solo yàlla na yàlla dolli leeram te taas nu itam ci barkeem ñuy nuyu baax a baax Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ñu gën koo xam ci Serigne Cheikh Abdou Baali Euh, moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma waaye euh, moom euh, soxna Bali moom soxna Maymunatu bintu Xaadim Rasul muy koo xam ne moom it ku ci taxaw taxawaay bu am solo la diirub soxna si nekk fi ba tey jii nii at mu nekk mu di ko taxaw xam ngeen ne daaw nag amul ndax contexte bi moo ko laajoon waaye mu defoon ci ay conférence def ci ay visio yoo am solo yoo xam ne ni wane na ne dañoo war a jëmmal guddi googu te ji moom la ñu war a fas yéenee waxtaane ci kaw coordination bu am solo bi nga xam ne ni Cheikh Abdou Lahad Mbacké def na ko ci ñu feggoo ko ak sunu jëwriñ euh, Serigne Jibril Ndaw euh, directeur de programme bu Touba TV ñu fas yéene seq nga mooy plateau bi waaye am ay gan yu sell yu màgg ay borom yi xam-xam fas yéene bokk ak ñoom jotaay bi ñu koy tàmbale ci Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké Serigne Modou Mahfouz Mbacké ñu di ko ziyaare ba amite ci euh, teewaayam ci plateau bi ñu di ko ziyaare kon palato bi cëram la moom ndax ginnaaw surtout soxna si itam terewul mu ñëw ngir fas yéene eh, ñu wetu li nga xam ne mooy plateau bi waaye ñu fas yéene ko ànd ak eh, suñu eh, jëwriñ muy sëriñ Ndeye Syll werekaan muy koo xam ne nii itam grand historien di borom xam di ko xam ne bu ñu ko gisee ci plateau bi xel yépp dina dem ci archive sëriñ bi waaye xel dana dem itam ci daarawaay bi nga xam ne nii ku ne xam ne ni soxna may mënatu bintu Xaadimu Rasuul sëriñ Tuubaa da ko yëkkati woon ñu teg ko ci loxol sëriñ Cheikh Awa Balla Euh, moom borom daarul mooti euh, mu liggéey fi liggéey bu am solo te moom yaakaar nañ ko waxee rek benn euh, benn njañ ñu gaa yi di wax benn njañ la yor muy liggéeyal borom daaru mooti ñu di ko ziyaara baax a baax waaye danañ séq ak plateau bi Serigne Mourtada Silla Abo Marème Serigne Mourtada di borom xam-xam bu mag Euh, yaakaar naa sunu xarit la gis ngeen liggéey boo am solo bi nga xam ne mi ngi koy def Touba TV euh, di ne xam na digganteem ak njabootu soxna may rawatina sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ci laytul xadar gi taxawaay bu am solo bi nga xam ne ni euh, mi ngi ko ci am ñi ngi séq jotaay bi tam sëriñ Cheikh Gueye Téere sëriñ Cheikh Gueye Téere dana ñëw ci li nga xam ne ni mooy ndax jóge ci kër gi waaye nag ci soxna may tasaare ki nga xam ne doon nañ ko def ci alxuraan yi ñu daan séddale ci daara yi ndax loolu lañu daan jëmmale li nga xam ne bis bi dana ci ñëw ak taxawaayu daara ji euh, waaye ñi ngi ziyaare baax sëriñ seexu euh, naa ndaw xasida moom it danañu ñëwal ci abiyaat yi nga xam ne ni euh, defal na ko soxna sell di soxna Maymunatu Mbàkke bintu Xaadimu Rasuul ñu am mbégte bu baax a baax ci teewaayu moom tamit ci plateau bi ñuy nuyu nag sëriñ Modou Mahfous la di président bu Soreya di sama xarit tey moom sama gan la Euh, ma di ko ziare baax di am mbégte ci teewaayam moom tamit ci plateau bi xam naa du na dana ci kàddu kon sëñ Jibril dama lay bàyyi rek nga nuyoo soo nuyoo jàpp naa ne tey euh, tem bi euh, benn rek lay doon muy layatul xadar ak yi ci aju rawatina nag ku ne xam ne laytul xadar dafa nekk ci biir weeru koor waaye ci biir weeru koor ci la laytul xadar nekk ci la ñu wàcc alxuraan ngëneel yu baree bari am ci waaye nag muy ni may waxee ne weeru rajab bu ñëwee xel yëpp dañuy dem ci sëñ fàllu waaye weeru koor bu ñëwee xel yëpp dem ci soxna May Munatu Mbàkke bintu Xaadimu Rasul sëñ Jibril jërëjëf euh, Alaaji Am auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokki jullit mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér ñaanal njabootu Serigne Touba yëpp ziyaar bu baax a baax yi tamit njabootuk borom daaru di ci jiital sëriñ Basiiru Mbàkke Anta ak mboolem njaboot gi yëpp di bu baax a baax sëriñ Moodu Maxfuus mbakke ak mboolem njabootuk soxna Maymunatu Mbàkke bintu Xaadimu Rasuul sëñ am ni nga ko waxee euh, sëriñ Tuubaa suñu borom da ko defal tawféex ba mboolem bis yi war mboolem lépp lu mat a magal suñu borom defal ko ci tawféex joo xamante ni kenn du ko ci fekk ci bis yi ci waxtu yi ci weer yi benn bu nekk mu liggéey si suñu borom ba am ci waaye nag am ci njabootam tamit koo xamante ni moom la ko rafaatale yaakaar naa ne liggéey bii nga xamante ni moom lañu liggéey ci laylatul xadr ginnaaw ba mu ñu ko jëlalee baaxee ñu ko dëxëñal ñu ko ba ñu xam ko loolu yi tamit mu féetalee ko soxna may soxna may di ko taxaw taxawaay bu am solo loolu nag moo waral ñuy def at mu nekk jataay yu mel nii te lépp nag di tegee ci xam-xam di tege ci taalibe ndax moom loolu rek la dundul ni nga ko waxee tamit ñu am mbégte séq ko nag ak gan yu tedd yi di ci jiital suñu xarit Serigne Baye Cheikh moom Serigne max Mahfouz ak mbooleem ñi mu àndal Serigne Mourtada Sylla Abou Mariam borom France xama borom itali moom it ñu ngi koy ñu ngi koy nuyu di nuyu Serigne Cheikh Gueye téere waaye tamit ni nga ko waxee beral nuyoo yi tamit suñu mag suñu kilifa suñu lépp di Serigne Mbaye Gueye Sylla Euh, liggéey ak borom daal di gëstukat di archiviste moom ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax sëriñ naa Ndaw moom suñu rakk la euh, ñu xam ko lool ci kër Soxna May xam ko yi tamit ci kër sëñ Modou Mahfouz ndax diggante boobu rek lay baa nga mosu faa jóge nuyu bu baax a baax yi tamit euh, sëñ Modou Mahfouz Silla muy suñu xarit ba ñu nekkee gone ba léegi ñuy ànd moom i tamit mu doonoon lépp ci Soxna May loolu soxna Baali feddali ko yi tamit mu boobaak léegi muy jokk loolu ci kër sëñ Modou Mahfous di ko jokk tamit ci kër soxna May kon daal ñu daal di rek bi ci waxtaan wi di waxtaane koo xamante ni tamit yomb naa waxtaane ndax euh, dundam gépp da ko jeexal ci sunna jeexal ko ci alxuraan jeexal ko ci taalibe jeexal ko ci bëgg sëriñ Tuubaa sëñ am jërëjëf El kon ci noonu la euh, coow rek daw xool benn euh, portrait euh, bu soxna may mënatu ni nga ko waxee rek. Mhm. waxtu woo gisee ne taalam rek yaa ngi koy gis ma ngay ree. Mhm. nga yor alxuraan karim loolu jàpp naa ne nuroo na. Mhm. nuroo na méngoo na ak taxawaay bi nga xam ne am na ko ci weeru koor. li ko ci gënoon a ñor nag mooy jàng alxuraan waaye nag liggéeyal ci sëñ Tuubaa ci ay ku ne xam na fi mu ko tàmbalee ci ganaar ba ni mu yegg see tey jii nga xam ne yaatu wër nga képp àddina. Euh, su ko defee dañuy àndandoo ak waaris yi xool benn portée de bu gàtt bu une minute euh, di wat ci plateau bi door nag dugg ci li nga xam mooy waxtaan bi. ngeen mënuloo waxal laylatul xadr fii ci Sénégal. na Maymuna Mbàkke bintu Xaadim Rasul ñu ngi gane àddina ci atum 1925 ci Diourbel bi Serigne Touba nekkee ci résidence surveillée. dëppoog juróomi fan ci weeru koor waajuram wu jigéen di soxna xari si la ñu gën koo xam ci soxna xari daaru moom soxna may bi fi sëriñ Tuubaa di bàyyeekoo ci atum 1927 ñaari at rek la amoon moo tax magam ja di sëriñ Mouhamadul Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo njëkk a nekk xalif général des mourides jël ko taxawu ko bu baax a baax ci am njàngam ak yaram ginnaaw bu mokkalee alxuraanul karim jàng na xam-xam fan kooku ki nga xam ne moo di sëriñ Fallou Mbacke moo ko ci taxawu ci waa waajuram ya soxna Maymuna Mbàkke doon na ci ñoom ak sell dal bëgg alxuraanul karim ak xasida waaye nekkoon jëm ju mënoon taalif ak a jàngale nekkoon it ku mënoon a yar soxna may bëggoon lool waajuram wa di cheikhul xadim waaye daan ko liggéeyal toolam yu bëri yum amoon la ca daan bàyyi ko daan ko jagleel daaray kaamil nekk ci dëkk bi ak daaray alxuraan yi xawatina guddi gi nga xam ne moo di leelatul xadr mu nekkoon nit jëmm ju mënoon a joxe ñam kon jëmm ju bëgg lool alxuraan karim ak day waajuram wa di cheikhul xadim soxna may Maymunatu Mbàkke ñu joxoon ko Serigne Cheikh Awa Balla Mbàkke moom maam Thierno Birahim mu am ca soxna Baali Serigne Modou Mahfouz ak soxna Maam Faati mi nga xam ne dafa teel a génn àddina soxna Maymuna Mbàkke dundam yépp mu jagleeloon ko laylatul xadr lépp a ngi bàyyi ko ci atum 1952 ci ay reer yu mu toggaloon Cheikh Mahamad Fadal Mbàkke mi nga xam ne jamono yooyu moo fi nekkoon xalif général des Mourides ñëw jébbal kooko ginnaaw bi ci la ko sëriñ bi jox ndigal lu muy taxawul li nga xam ne moo di laylatul xadr gi fonkoon laylatul xat lool daan ko taxawu ci mboolem dëkk yi nga xam ne woon na fa daarul moxti daarul ma naan ba ci daarul xab mu amoon ni tool yoo xam ne la ci daan bàyyeekoo danga daan jagleel guddi gu màgg gi waaye daan yar ay jur yoo xam ne dañ ko ci daan def ginnaaw daarul waxaab ci la soxna may indi laylatul xadr gi di ko amalee fii ci tubaa Mbacke ginnaaw bu mu ci waxtaanee ak Serigne Abdoul Ahad Mbacke ca njëlbéen ñu ko daan amalee ci kër soxna May gi nga xam ne moo nekk ci Touba mosquée daan fa amal ay benn yu yaatu jàng alxuraan ak xasida bëri na kilifa yoo xam ne daan nañ fa teew rawatina ñenn ci doomu Serigne Touba yi ñu mën caa jàpp Serigne Abdoul Khadir Mbacke Serigne Mourtada Mbacke. ci atum 1994 mu jot ndigal ci Serigne Saliou Mbacke ngir ñu indi laylatul xadr gi di ko amalee ci li wër jumaay Touba ji daan fa amal ay tànt ak njàng mu yaatu ci wàllum alxuraanul karima xasida mbooloo mu takk lool daan ko teewee ñu fa daan dundalee guddi gi ba bëset moo tax lépp lu guddi gi laaj da ci daan taxaw temm loole sax moo taxoon mu taxawaloon résidence soxna may bi nga xam ne moo nekkee ci HLM ngir dalal fa gan yi ak kilifa yu mag yi nga xam ne dañ daan ñëw ci guddi gile daan fa amalit bernde yu yaatu ak cérémonie officielle yi jërëjëf waa Rési ñu gërëm leen baax euh, sëñ Mbacke Mbodj di ko sant di gërëm ci taxawaay bu am solo bi ak euh, sëñ Daam ca euh, réalisation ba sëñ Jibril ma bàyyi la xanaa sëñ sëñ Cheikhu Nanda bu ñu mën a yëkkatil ay abyaat wala bu ñu dugg ci waxtaan wi rek mu ubbil ñu kon sëñ Cheikhu na ñu bàyyi ko mu ubbil ñu ay abyaat ci soxna Maymunatu bintu Xaadim Rasul ñu door a dalal sunu kilifa yi ci waxtaan incha allah kon sëñ Cheikhu naa bismillah في الخدر من خسنا فضلا بليلة القدر الحمد لله المجيب ذي القدر من خسنا فضلا بليلة القدر alhamdulillahi almujibi zil qadar man xasana fadlan bi laylatil qadar مواسما لسانيا في الدار حتى خدا خيرا من الفزار suma salaatu wa salaamu abadan ala allazi xayri lbariyati mana suma salaatu wa salaamu abadan ala allazi xayri lbariyati mana bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi ma sant yàlla julli ji xayril xalqi rabbun jalla wa baadu maa ngi taalifal maymuuna mañ naa saqiira waaye mag la moona mooy bintu say xinaal xadimi jaat ma moo tax ba mboole mag ña war ma mu baale booti taaw ya ak yay jaat ya donnu jambut ya nekk tey ba ak ndax tey ba di wàllu kër nijaayam ñoom nit sunna lañ yu selli xam-xam ku sell aw doxiin ku yaatum lef la ci yoonu Seex Bàmba ku rëy ak may la wallaay aw sasam ci tool bi booyul lum war def ma nga jàkkoo ko naa Ndaw xam naa dana ñëwaat ci deuxième partie bi bu ñu demee ba xaajal euh, bala ñoo dugg ak euh, sëriñ Cheikh Sidi Moukhtar ak euh, sëriñ Mbaye Sylla ak sëriñ Cheikh Gueye ñu ngi ci weeru koor sëñ Jibril ñu dalal sëñ Mourtada Sylla Abo Mariam sëñ Mourtada dañoo bëggoon soo ñu ubbilee nga ñëwal ñu ci weer wi ak guddi gi li ma bëggoon sax nga ubbee ko mooy lan moo tax xayrun min alfi shahrin ndax bi bi si bari na weer yi bari na yi mën a tàmmu itam ndogo yërmande yi suñu borom bari na waaye ci guddi dafa yu baree bari yu ci lëxañu yu ci dëxañu yoo xam ne warees na ko mën a leeral bala ñoo ñëw ndax ñu xam ne euh, guddi gi rek am na wàccuwaay wu rëy te li ñuy wax rek alxuraan moom lépp lu mu indi rek lu ñu codé ba noppi la exécuté moo cay topp nan nga ñu mën a indilee xayrun min alfi shahrin ci biir weer wi nga xam ne euh, ci la génn muy shahru ramadan ñu door a ñëw nag ci euh, dëgg-dëgg waxtaan bi jàppal jàppal ci kaw ci kaw aousubillah min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallama wa baraka ala sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa ummatihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñoo ngi sant yàlla suñu borom di julli ci yonent bi di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ko ñaanal suñu borom mu sàmm ko te yàggal ko fi lool ba mu àggale naal yëpp barki borom Tuubaa noo ngi siyaare ak nuyu bu baax a baax a baax njabootu soxna Maymuna gi yëpp di ko tàmbale sëriñ Modou Mahfous Mbacke moom it di ko ñaanal yàlla mu sàmm ko bu baax a baax waaye di nuyu sëriñ Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma moom mi nga xam ne mu sabab suñu ñëw fii di nuyu it bu baax a baax a baax sëriñ Sidil Muxtaar mii nga xam ne moom la ñu àndal jóge Touba di doomi sëriñ Modou Mahfous waaye it bokk ci mbokk yi nga xam ne ñooy taxaw organisation màggal gi laylatu xadar gi ci lu jëm ci wàllu euh, xam-xam ak kilifa yu tedd yi ñu àndal yëpp Serigne Mbaye Guèye si li buñ ko tuddee mën nañ ni tudd nañ jotaay bi yëpp di sant ñëpp ak a gërëm ñëpp waaye di leen nuyu bu baax a baax a baax Serigne Amidou Diop ak sama xarit sëñ Jibril <laughs> mi ngi may tooñ <laughs> ñu ngi koy ziar bu baax a a baax di sant bu baax baax nag xam naa buñ leen nuyoo mën nañ leen nuyu nañ waa waa télé bi yëpp ci laaj bi muy ubbi waxtaan wi ci laylatul qadr lu tax mu nekk xëy min alfi shahr euh, ci gàttal rek xam nañu weeru koor ak ngëneelam ak lépp loolu moom xamees na ko nee nañ dafa am ci ku bokkoon ci banu Israil koo xam ne dañoo wax yonent bi xamal ko ne ko moom kat lu mat alf lu mat junniy weer yoo xam ne musta dañ ci liggéey ci yoonu yàlla maanaam bi ñu xoolee dundam gi yëpp daal lu mat junniy weer yoo xam ne nii la gën ci xeetu jaamu yàlla mi ngi koy def muy di jaat fi sabilillahi yonent bi di amul ñeewante lool ci kooku lu tax bokkut ci xeetam ci bannu Israël la bokk te moom ñaare lu ne ci xel mi rek wala lu mu bëgg rek yàlla koy fekk si loola suñ borom ne ko ci biir weeru koor bi nga xam ne moom laa farataal ci yéen danaa ci nëbbu benn bis boo xam ne nii danaa leen ci xéewale benn bis boo xam ne nii buñ ko fonkee ca jaamu ko jaamu ci yàlla ca sellal ko bis booba mën naa wecci la kooku dund kooku liggéeyut benn fan junniy weer la liggéey junniy weer yoo xam ne bis bu set mu ngi ci lu neex yàlla ci baaxuk yàlla ak yërmandeem mu baaxee xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam benn guddi goo xam ne nii buñ ko màggalee dana gën dana gën junniy alxuraan nag ak weeru koor dañoo am ak jàppaloo akuk ànd goo xam ne gu yàgg la ndax dañoo wax ne alquranul karim eh, ñetti wàccuwaay la am ñetti wàccuwaay yoo xam ne moom la alquran am ba ci njëkk mooy sun borom bi mu ko dajalee ba nga xam ne lépp dajaloo na da ko bind làq ko ca lawxul mahfuus moom la naan bal huwa quraanun majid fii lawxin mahfuus ba mu ko jëlee lawxul mahfuus nag di ko wàccee ci li ñuy wax baytul izza mooy asamaan si nga xam ne moo tiim adduna bi ñu naan ko asamaa u dunya loolu boobu nag ba koy jëlee baytul izza ba mu koy jëlee lawhul mahfuz di ko indi ci samaa u bi tiim adduna bi nag loola ci laylatul qadr la dafa daje guddig laylatul qadr moom la jublu ci inna anzalnaahu fii laylatin mubaaraka inzal boobu mooy min lawhil mahfuz ila samaa i dunya moom la jublu ci inna anzalnaahu fii laylatil qadr loolu ci guddig laylatul qadr la woon guddi goo xam ne yonent bi junj na ay junj yoo xam ne sallallahu alayhi wa sallam ku góorgóorlu war nga ko mën a xam bokk na ca junj yee mooy dàkk leen ko ci bis yu mujj yi ci weer wi bokk na ca junj ci borom xam yi nag seen góorgóorlu ñi nga xam ne yàlla may na leen kasu ci dugg guñ doon dugg ci xalwa di ñaan am nañ ay nattale yu ñuy teg bu weer yu feeñee bi sàngam bi sàngam lay doon bu weer yu feeñee bis sàngam bis sàngam loo xam ne lu yàggale ci tasawuf sëñ bi fi la ko fekk ñu baree baree bari ci yoon wi it ci loolu la sukkandiku xam naa suñ Baye Cheikh bu ñëwee dana ci leeral soxna si ci calendrier boobu la doon sukkandiku bay lay laylatul qadar léegi nag màggaayuk alxuraan ak teddaayuk alxuraan nga xam ne yonent bi li muy bari bari miracle nee nañ miracle quraan mooy bi ci gën a rëy te mooy miracle boo xam ne day sax ba faaw moom la ñuy tuddee mojji sax kaalida miracle boo xam ne nii ba fi ba mu wàccee ba tey ba tey ñii ñuy waxee ba ci jamono yi di ñëwaat du dañ mukk di nekk miracle loolu nag ci diiru 23 ans la koy la ko suñu borom wàcc maanaam kon léegi ñetti tanazulaat yi ma la wax ne la moom alxuraan bu njëkk bi mooy étape bu njëkk bi mooy lawxul mahfuus étape bu ñaareel bi mooy sama udunyaa ñëwug sama udunyaa gi nag mooy laylatul qadar ndax loolu dafa rëy jëlee alxuraan lépp buub ko indi ko ci asamaan yi adduna di ko comp benn par benn yoo xam ne day ànd ak actualité di ko wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ci diiru ñaar fukki at la ak ñett ci ñaari étape yoo xam ne nii ci dundam étape bu màkkatal mukarrama ak étape bu madinatul munawwara looloo tax ñu ne laylatul qadri xayrun min alfi shahr borom xam-xam it wax nañ ci ay wax yu baree baree baree bare ci laylatul qadr bokk na ci mooy laylatul qadr ñaari baati arab la laylatul qadr mares na ko fi firee guddik dogal wala guddi gu màgg gi nee nañ fiihaa yufraq kullu amrin ci guddi googu noonu ci la suñ borom di xoolaat lawxul mahfuus mboolem turi jaam yi nga xam ne mbindeef yëpp seen dund même ñi ñëwagut sax kenn ku ne li ngay dund ci sa wërsëg sa wërsëg li muy tollool ñaata at ngay dund sëg dund nan lay demee ila axir yi la ci aju lépp nee nañ guddig laylatul qadar lañ koy modifié waat léeg-léeg jaam bi dana góorgóorlu ci guddig laylatul qadar suñ borom xoolaat alliwa ja lañ ca bindoon imma mu nekkoon way texee di mu góorgóorlu ci laylatul qadr ñu modifier loolu nga xam ne ci coobareem sañ na ko def def ko mu bokk ci way texee ngir dundal ko dundal laylatul qadr manes na koo bindit leneen loo xam ne nii ci gàttu wërsëg wala gàttu fan fekk ñaan na ñaan gi ci guddig laylatul qadar suñ borom jéggal ko ba defalaat ko xéewal foofu ñu ne loolu moo tax ñu ne laylatul xadar ñu ne déedéet am na ñu ne déedéet loolu taxut waaye màggaayu guddi gi la ndax lu toll ni alquranul karim guddi gi ko wàcce loolu guddi gu màgg la loolu nag ci yoonu murit nag boo dee xoolaat ci leeratul xadar koor dafa bariwaat yeneen ak yeneen ak yeneen yu ci dajewaat ci mbirum sëñ bi ndax alxuraan ak sëñ bi rek waxtaan la mbir la sëñ bi koor rek mbir la sëñ bi leeratul rek mbir la sëriñ bi ak weeru koor bi koor màggee ak la ci aju lépp sëñ Tuubaa ci boppam moom daa am fu mu jaar ak weeru koor moom sëriñ bi ak weeru koor rek yem ci jaarukaay boo xam ne nii yu metti la ba nekkee ca tukki ba ak jaarukaay boo xam ne ni moom la tàggat waa këram tàggat googu mooy jeex yi ngay gis tey jii nii weeru koor gi ni mu lëmbeek alxuraan ci murid yi ni mu tasaaroo ak alxuraan yeeg activités yi ñuy def ci weer yi ci lu jëm ci lu neex yàlla ci jàngum xasida julli ci yonent bi sallallahu alayhi daanaka fooy xol ci réew mi yëpp loolu ngay daal di gis kon sëriñ bi dafa amaat ak weeru koor woowu noonu àgg ci sax ba ne sahru ramadan sirriya wax ko ci façon waxin bu ne ba sax buy wax ak koor day mel ne sax kuy wax ak jëmm joo xam ne da ko sol ba mu jekk mu teg ko nii di wax ak moom bu buy wax ak moom day mel ne ku jàkkaarloo moom di ko wax ñu kon loolu mooy bu njëkk bi étape bi ci toppaat ci sëriñ bi bu ñaar bi ci sëriñ bi ak ak ak weeru koor sëriñ bi it ak amaat fu mu jaaraat ak alquranul karim alquran ji nga xam ne moog weeru koor ay seex lañ ndax ci biir weeru koor ci la al ci la alquran ñëw sëriñ bi it am jaar-jaar yu jaar ak alxuraan yoo xam ne yu yaatu la yu yu yu yoo xam ne ci biir waxtaan yi xañ na du ñàkk mu génnaat mu feeñaat incha allahu taala beneen bi ci toppaat mooy ñett yi ma la wax sëriñ bi ak weeru koor sëriñ bi ak alxuraan sëriñ bi ak laylatul qadar ci biir laylatul qadar it am yeneen garab ak yeneen may ak yeneen xéewal yoo xam ne suñ borom da ko doon denc di ko xaar bis bu rafet bu mu ko ko joxe bokk na ci bis bu rafet boobu muy laylatul qadar lu ci mel ni wer wer du ma ko ci wakkaana xaqan am na lu ma yàlla diggoon loo xam ne nii defal na ma ko ci weeru koor muy guddig laylatul qadar waxoon na sëñ am sëtu jaxat ne ko euh, dafa am lu ma yàlla dig loo xam ne nii ñaanal ma mu yegg seeg jàmm nee nañ sëñ am ne ko xanaa làmmiñ wa may ñaane de ba muy am yow yaa koy def ci man mbakki waaw booba wérdu maaxus bi nga xam ne daa dajale mboolem barke bu nekkoon ci wérdu yee jiitu gu ko yàlla doon xéewale di xaar bis bu rafet bu mu ko koy joxe ca sarsaara jox ko benn rëyaay boo xam ne ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñëw indil ko ko loolu ci leelatul xadar la kon boo xalaatee ci biiraat màggaayu koor sëriñ bi da cee amaat mënee su koo wax ci duñ ci tudd sëñ bi alxuraan mënee su koo wax ci duñ ci tudd sëñ bi leelatul xadar yi mënee su ko wax ci duñ ci tudd sëriñ bi muy xew rëy googu nga xam ne moom la ko yàlla xéwale ci leelatul xadar kon leelatul xadar ak weeru kooraat ci biir weeru kooraat yi barkeel gum barkeel bari na loo xam ne nii yu màgg la yu ñuy tudd yoo xam ne bala ñu ñëw sëñ bi sax yu màgg yoo xam ne nii suñ borom da koo xéewale di ko xaar di ko xaar ba weeru koor loolu am ci yu baree bare bare ci lislaam ba ci njëkk mooy ca moom laa wax léegi muy wàccuk alxuraan bu ñaareel bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jógee màkkatal mukarrama dem madinatu munawwara diir bu yàgg yàgg am fa fukki at ak nàngam xéewal gi ko yàlla waat ba nekkoon isaa jaa an nasrullahi wal fatxu fatxu ko ci biir weeru koor googu la amee woon muy duggaat màkka mboole xiram yi nga xam ne ñoo waroon kaaba ga cam tolloon ñetti téeméeri xiram ak nàngam ñu sobeel ko sobeel ko laabal googu ak setal googu suñu borom xéewal na ko ci biir weeru koor la amaat ci la la ko yàlla naan innaa fatahnaa laka fathan mubiinaa li yaxfira laka llaahu maa taqaddama min sanbik loolu ci biir weeru koor la amee kon ci biir weeru koor na ay ngëneel yoo xam ne ci lislaam ak i xew-xew yoo xam ne ci biir weeru koor la amee bokk na ci it muy xare badar bi nga xam ne suñ toogaay bii bu amee xare badar ba ngañaay bu ñu ci am moo tax am moo tax waaye bu ñu ci gañoon jullit yi daanaka mboolem li ñuy taxawal ci lislaam du am te it mu bokkaat ci beneen relation boo xam ne badar da ko amaat ak sëriñ bi ndax bokk na ci cër yi nga xam ne moom la doon laaj boromam ba boromam jox ko ko ba xamal ko ne ko mel na ne ku teewoon ci xare boobu noonu mu wax ko ci mbindam yu baree baree baree baree baree loolu it ci biir weeru koor kon weeru koor dafa doon weer woo xam ne ni weeru xéewal la woo xam ne weer la woo xam ne yàlla ci cee dëxëñ ay may ak i maqaama ak i martaba yoo xam ne ci biir weeru la nekk euh, alxuraan it doon loo xam ne nii moog weeru koor ay seex lañ maanaam weeru koor bi mu ñëwee alxuraan dafa judduwaat ci biir weeru koor juddu googu di waat ci biir laylatul xadar kon laylatul xadar li ma la wax léegi tàmbali bi ne la ab bis la boo xam ne nii suñu borom moo ko xéewale xeetu bi sallallahu alayhi wa sallam ci yonent bi ñeegum ñeewoon nit ña njëkkoon nga xam ne nit kooku nga xam ne dafa bokk ci bannu Israël mu gis aw turam ñu ko jobe ci aras ak kursi yu li ko waral mooy alfu sahar yoo xam ne bis bu yàlla sàkk mu génn xeex fi sabilillahi xeex boo xam ne ni yàlla da ko nangu ñu di ko compter di ko compter ba alfu sahar yoo xam ne nañ ko war yonent bi xool ne ñee kooku yàlla ne ko danañ la may benn bis boo xam ne nii ci biir koor lay doon bis boobu mooy laylatul qadar ku ko màggal wala nga teral ko da am yoolub ku dundal Euh, euh, yoolub ku dul euh, alfu shahr junniy weer borom xam-xam yi waxaat nañ ne bokk na ci li taxit yàlla xéewale ko alfu yooyu muy laylatul qadr mooy nit ñu njëkk ñi dañ guddu fan lool daanañ dund daanaka nangami téeméeri at xeet yonent nag yàlla def seeni at bu bu guddee ba gudd ba gudd téeméeri at lay doon léegi sax àgg nañ ba juróom-ñaar fukki at juróom-ñett fukki ku ci dund te bu njëkk daanañ dund ñaar téeméeri at ñetti téeméeri at ñeent téeméeri yoo xam ne nii ay nit yoo xam ne nii dañ daa ànd ak yonente gëm leen ca duñ ci mooy yàlla ca loolu boo dee xool danañ dund ay alaafi alaafi weer yoo xam ne nii dañ ci dañ ci tegu ci yoonu siraatal mustaqim yàlla suñu borom nag bëgg a may xeetu yoonante bi alayhi salaatu wasalaam xéewal gu rëy goo xam ne nii day tol ne loola wala mu ëpp ko mu xéewale leen génn guddi goo xam ne nii mooy laylatul qadar guddi ko nag kon guddi la goo xam ne guddi gu màgg màgg la goo xam ne gu mat a màggal la gu mat a dàkk la bu ñu yàlla xéewalee nag kenn ci njabootu sëriñ Touba fu ñu ko waxee rek suñu xel dem ci soxna ca soxna dafa yàgg am dafa yàgg barkeel maanaam jigéen dafa yàgg barkeel ci lislaam lu yonent bi lu lislaam yëkkati rek tam barkeel jigéen feeñ na ca bu baax a baax a baax moo xam xam nañ ko wala xamuñu ko fis goo xam ne nii rëy na ëpp na sëriñ bi nag yàlla da koo fayaat nag noonu mu meloon ci alxuraan mel ko ci weeru koor xër gum ci xër kenn ci njabootam di caatam mën nañ la xër googu mu xër ci alxuraan yàlla faye ko ko ci soxna soos fi ne soxna si du laylatul xadar rek xam naa bu ci sëñ bàcc dana ci dana ci leeral waaye jimmi alxuraan ci boppam dafa amaat nu mu melaat ci alxuraan loo xam ne nii moo ko may mu taxaw di dàkk di dàkk di dàkk bu ci laylatul xadar googu lu lu am solo. rawatina nii nga xamante ne noonu la indee euh, bis bi ak taarix bi nga xamante ne am na ko ci diine lislaam yaakaar naa ne foofu rek balaa ñuy ñëw ci ñoom sëñ bay dañuy jox Baye Cheikh ndax mu mën a sof moom it fii nga xamante ni moom la sëñ Murtada bàyyee mën a yi tamit nag wàccee ko ci euh, soxna May ni nga xamante ni noonu la ko sëñ Murtada waxee cër bi nga xamante ni sëñ Tuubaa am na ko ci alxuraan am ko ci weeru koor waaye loolu yi tamit mu jël ko rafaatale ko soxna may waaye tamit ndam li nga xamante ni sëñ Tuubaa am na ko yi tamit ci doomam ñu naan doom yi jigéen yi ci ni yaree ak xew ba xewoon diggam ak naar baak ak yooyu yëpp tamit di ndam yoo xamante ni am na ko ci fonk gum fonkoon euh, soxna yi di leen jàngal di leen teg te yaakaar naa ne njabootam jigéen yëpp koo ci jël rek ci soxna Faati Jaba ci soxna May mën nga cee wane taxawaay bu mu am ci xam-xam ak ci jàng sëñ Baye Cheikh alhamdulilah al mujibi dil qadar man xasanaa fadlan bi laylati l qadar muaziman li shaniha fi dahri xata gada xayra min alfi shahri summa salaatu wa salaamu abada bariyati bada ñoo ngi nuyu jullit ñëpp di leen ziyaar di leen ndokkeel ci weer wu tedd bi di jiital ci nuyoo bi ak ci ziar bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaan suñ boroom yàggal ko fi lool ba mu àggale naalam yépp te àndoog ak moom di ndokkeel jullit ñëpp di ñaan lépp loo xamee ne def nañ ko ci ay jaamu yàlla ci weer wu tedd bii suñ borom nangul ñu ko te fekk waat ko ay déwén yu bare bare bari di am mbégte nag di seq ak yéen jataay bu tedd bii eh, nga xam ne dañ koy waajale bis bu màgg di laylatul qadr te soxna may mënatu mbàkke daan ko taxaw ñu ñaan lépp loo xamee ne def nañ ko ci ay jaamu yàlla suñ borom nangu ko te jotale ko soxna may mënatu Mbàkke ñu ngi fi ànd suñ mbokk yi tedd yi ci ndigalu sëriñ Mouhamadul Mahfouz xam naa balu ñoo ci waxtaan wi rek dañuy yóbbante dañuy jotli ab yóbbante boo xamee ne sëriñ bi moo ñu ko yónni muy ak cant ak ngërëm lu jëm ci boroom kër gi di sëriñ Mbàkke yu fay ci eh, taxawaayam ci lislaam ak taxawaayam ci yoonu murit ak tasaare njàngalem sëriñ Touba eh, sëñ bi nee na mi ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax digganteem ak soxna su lu yàgg la digganteem ak soxna su lu yàgg la kon ñu koy ñaanal suñ borom dëgëral ko barke sëñ Tuubaa ah, di leen nuyu yéen it ah, di nuyu sëñ Jibril ak sëñ Xaamidun ñoom it di rafetlu seen taxawaay bu baax ci liggéey bi ah, soxna si nag mm, bala ñu cee dugg rafet na ñu ñu ñu nafar wàccuwaay bi nga xamee ne lislaam jox na ko jigéen ndax ku ne xam na ne lislaam dafa teral jigéen daf ko teral euh, gàll ci moom ay wareef jox ko responsabilité responsabilité boobu bu moom euh, fay gi itam lislaam da koy fay li ma bëgg wax mooy euh, lislaam dafa yemale góor ak jigéen dafa yemale góor ak jigéen ci li leen sant waaye ci li leen di fay bun jëfee yooyu euh, bun jëfee ndigal yi ndax nee góor ak jigéen ñoo bokk fu ñoom ñëpp ci sunu maam aadama ak xawa leen bàyyi ko kon ñoo bokk genn garab gu leen meññ moo tax lim leen sant eh, lenn la neen mi ngi wax ci alquran ne yaa ayyuhan naasu taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu llaha alladi tasaaluuna bihi wal arxam inna allaha kaana alaykum raqiba nee na yéen nit ñi maa leen e, sàkk ngeen jóge ci benn bakkant mooy suñu maam Aadama kon nag maa ngi leen digal yéen ñëpp yéen nit ñëpp ngeen ragal yàlla te mbokk googu dox seen diggante ngeen jokk ko ah, loolu moo tax góor jigéen li leen suñ boroom sant benn la te mooy ñi ragal yàlla topp ko alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ne jigéen ñi ñooy mbokki góor ñi jigéen ak góor ñoo bokk ndey ak baay ar rijaalu wa annis innama nisaau shaqaiqu rijaal góor ak jigéen ñoo bokk ndey ak baay ndax ñoo bokk jugi loolu moo tax alxuraan def leen yamale ci euh, responsabilité responsabilité bi nekk ci góor moo nekk ci jigéen jaamu yàlla itam def leen ci yamale lim sant góor gi moom la sant jigéen gi ci jaamu yàlla ak ci diine moo tax bu ñu demee ci suuratul ahzaab suñ borom mi ngi wax ne innal muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati wal qanitina wal qanitaati wa saadiqina wa saadiqaati wa saabirina wa saabiraati wal xaashiina wal xaashiaati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqaati wa saaimina wa saaimaati wal xaafidina furujahum wal xaafidaati wa zaakirina allaha kathiran wa zaakiraati aada lahu lahum magfiratan wa ajran aziman foofu mel yi mu joxe yépp góor yi jigéen lay tudd fay gi itam ñoo ci bokk yam kon loolu day wane ne eh, wàccuwaay wi góor am ci diine moom la jigéen gi am ci jaamu yàlla waaye itam rôle social rôle soci bi bi nga xamee ne góor ak jigéen dañ ko war a euh, jouer ci société bi moom it ñoo ko tolloole ci euh, euh, santaane lu baax ak tere lu bon ak ci ak rôle bi nga xamee ne moom lañ war a jouer ci société bi ñoom ñoo ko responsabilité bi bi ñu war a am ci société bi ci digle lu baax ak tere lu bon ak ci yar nit ñi ak ci jàngal leen ak ci am ci ñoom njariñ loolu lépp góor ak jigéen ñoo ci am moo tax alxuraan di wax ne wal muminuuna wal muminaat baaduhum awliyaau baad na bil maarufi wa yanhawna anil munkar wa yuqimuuna salaata wa yutuuna zaka wa yutiicuuna allaha wa rasulah ulaayika sayarhamuhumullah nee na way gëm ñi ñu góor ñeeg ñu jigéen ñi ñoo bokk fun jóge nee na ñoo bokk bokk ñoom ñaar bokk na ci seen responsabilité ñuy digle lu baax ak di tere lu bon waaye itam bokk na ci li ma leen digal ñii taxawal julli tey joxe asaka tey topp sama ndigal nee na bu defee loolu dana xam ne daan dajeeg sama yërmande kon góor a jigéen euh, euh, lii lislaam gàll ci ñoom ci rôle bu nu war a jouer ci société bi ak jaamu yàlla ñoo ko ñoo ci yem ñoo ci bokk yem ba tey ñoo tolloo ak fay ci lépp loo xamee ne dañ koo def ci ay jaamu yàlla wala liggéeyal ko lislaam ndax suñ borom du neenal jëfi kenn moo xam góor la wala jigéen la moo tax muy wax ci alxuraan ne fastajaaba lahum fastajaaba lahum rabbuhum anni laa udihu amala aamilin minkum min dakarin aw unsa baadukum min baad nee na képp koo xamee ne jëf nga jëf ju baax na nga xam ne man duma ma ko nenal moo xam góor la walla jigéen la mi ngi dellu wax ci mi ngi dellu waxaat ne man amila saalihan la dakarin aw unsa wa huwa mumin fa la nuxiyannahu xayaatan tayiba nee na képp koo xamee ne yaa ngi jëf-jëf ju baax jëf ju rafet ànd gëm yàlla dinaa la may dund gu tey ci àdduna te bu ñëwee al euh, yowmal qiyaam ma fay la lu gën a rafet la nga daan jëf moo xam góor nga wala jigéen nga loolu moo tax alquran euh, di ñu jox ay exemple ci waajur yu baax yoo xamee ne danoo marqué l'islam danoo liggéeyal suñu borom ba seen tur sax dootu fi jug l'islam dañu si jox ay exemple te mën nañ ci tudd rek euh, yaay waajuru Seydina Moussa bu delloo ci alxuraan dañuy fekk alxuraan di ko tagg ci ñu mu toppe woon ndigalu suñ boroom ndax suñ boroom bi bi Moussa juddoo dafa diggal waajur ne ko nanga ko sànn ci géej gi na ko sànn ci géej gi te xam ne ma la koy delloo moom it gëm gum gëm euh, suñu borom daal di jëfe ndigal loole wa awxaynaa ilaa ummi muusa an ardiihi fa ida xifti alayhi fa alqihi fi lyam wala taxaafi wala taxzani inna radduhu ilayk wa min almursalin kon waajur Seydina Muusa ci jigéen ñi nga xamee ne suñ borom daf ñu ko joxañ ñi nekk ay royukaay Sayyidatuna Maryam itam alxuraan def koo def euh, mu nekk royukaay ci ak laab ci ak sell wa Maryam nata amrana lati ahsanat farjaha fa nafaxna fihi min ruuxina wa saddaqat bi kalimaati rabbiha wa kitaabi wa kaanat min alqaanitina kon moom it euh, l'islam royukaay la ko def ne ko noonu euh, la lislaam soññi euh, jullit yépp ci ñuy taxaw seeni doom yu jigéen di leen yar yarub lislaam yemale leen ak seeni doom yu góor loolu lislaam def cee insisté alayhi salaatu wasalaam euh, mi ngi wax ne képp koo xamee ne suñ boroom nattoon na ko mu am ay doom yu jigéen ah, mu yar leen yarub lislaam taqalewule nag ay doom yu góoram maanaam yemale leen nee na kooku doom yu jigéen ñi danoon dox digganteem ak sawara manubtuliya min hadihi banaat shay bi shay'in fa ahsana ilayhinna na lahu na lahu sitran min an-naar nee na képp koo xamee ne dénk naa la ay doom yu jigéen nga yar leen yarub lislaam jàngal leen taxawu leen yemale leen ak seen say doom yu góor na nga xame ne sa pay mooy àjjana kon moo war a nekk responsabilité yi. loolu xëy na moom nga nu bëgg indil mu ñëwaat ba ci soxna si waxul rek ne euh, soxna laa waaye dafa taxaw taxawaayu góor. foofu laa bëgg agsi mhm. soxna si. Mhm. ku ne xam na ne doomu sëriñ Touba dëgg la. te doomu Serigne Touba rek doy na maqaama. waaye nag doy la wutoon lool. doy la lool dafa nekkoon. taalibeb sëriñ Touba xam responsabilité bi nga xamee ne euh, moo moo moo tegu ci kawam euh, waaye loolu nag li ko ko li ko waral mooy dañ koo jaarale fi ñu koo jaarale dafa euh, dëgg la ci ay Euh, waajur yu sell ñoo ko meññi ndax doomu sëriñ Tuubaa rek doy na ndam waajur wu jigéen itam maam xari daaru ku ne xam na ne euh, euh, maamam di sëñ ma numbe maar moo taxaw Maamoor ant Sali moo ko jullee moo ko jullee ci ndigalu sëriñ Tuubaa kon ñoom liñ xam ci ñoom mooy lislaam ak diine ak xam-xam ak ngor waaye itam soxna si dañ ko jaarale fi ñu ko war a jaarale bi mu tolle ci eh, ndax ku ne xam na ne mook sëriñ Touba maanaam ñaari at la fi fekkanteeg sëriñ bi ñaari at ndax mi ngi gane àdduna eh, juróomeelu fan ci weeru koor eh, année mille neuf cent vingt ca Jurbel kon euh, euh, mën nañoo wax wax ne euh, xamut minante wuute nag waajuram ma Seexul Xadim ba tax na li nekk ci moom lépp magam yu tedd yi ñoo ko ca def di cheikh Mouhamadul Moustapha ak cheikh Mouhamadul Fadal bi mu toll ci jàng Alquran la ko cheikh Mouhamadul Moustapha jébbal. sëñ Alassane Jaxate nga xam ne doomu nañu doomu waajuru sëñ xam Xamsatu Jaxate la doomu baayam la moo ko jàngal alquran ba mu wate alquran itam Cheikh Mouhamadul Fadal moo ko jàngal xam-xam moo ko jàngal xam-xam ba mu géeju ci xam-xam rawatina xam-xam mu fiq waaye Cheikh Mouhamadul Moustapha moo ko tarbiya moo ko yar moo def ci moom ay jikko yu rafet moog waajuram wu jigéen te moom jaar-jaaram yépp yàlla dafa yàlla dafa def daf ko daf ko bind moom soxna si daa bind ay jaar-jaaram maanaam eh, ñi ko yar digganteem ak sëñ Modou Moustapha digganteem ak sëñ Fallou loolu lépp daf ko bokk daf ko daf ko def ci wolofal bi mu bind ndax moom eh, loolu rek day firndeel na boroom xam-xam la day firndeel na boroom xam-xam la Euh, bokk na ci yar bi nga xamee ne Cheikh Mouhamadou Moustapha def na ko ci moom daf ko yar ci ak taal bi si duqul iraada te loolu mooy am murit mooy koo xamee ne yitteem daf ko dafa kawe maanaam ngërëmul yàlla mooy moo nekk yitteem loolu mooy ak murit inna al murida laa yuridu abada gayra rida rahmani xay qasada nee na ab murid mooy ki nga xam ne ngërëmul yàlla rek lay wut ngërëmul yàlla rek moo ko tax a jóg bokk na ci li wax li li nga xamee ne euh, noonu la ko Cheikh Mouhamadou Moustapha daan dénk ak ak ak ko daan yare mi ngi wax ci wàllu falam bi ne dénkaan bi Cheikh Moustapha Mbackiyu moo ma ko dénkoon daana sol Mbackiyu ko njëkk a tontu ah, ab yar mooy lan ab yar mooy eh, njàngaleem lislaam nga fexe ba mu nekk jikku ci yow nekk yëg-yëg ci yow nga xam ne booy jëfe lislaam dañ ci am bànneex loolu mooy ab yar yar mooy nga kawel sa yitte maanaam da ngay weesu yitte woo àdduna def sa yitte muy ngërëmul yàlla li yàlla bëgg rek ngay bëgg ndax loolu mooy tax euh, euh, nga mën a jànkoonteeg ay coono te doo ko yëg mooy tax nga mën a jànkoonteeg ay coono te ko ndax ku de xam na ne lu baax yombut lu baax bala ko kenn am faaw mu sonn faaw mu sonn waaye nit bu nekkee ci li bëgg du ci yëg ab coono du ci yëg ab coono kon lool lool loolu mooy yar moo tax Cheikhul Xadim di wax naan nëbbahtukum maan ala kaddin badaa qabla an aradan mu badaa maa ngi leen di yee ngeen yeewu ci ne laata may làq ngërëmul suñ borom dama sonn dama jànkonteeg ab coono bu metti waaye coono yooyu yëpp pas-pasam ah, taxoon na daaw ko yëg pas-pasam taxoon kon Euh, Cheikh Mouhamadul mustafa li mu njëkk def ci soxna si mooy euh, bëgg sëriñ Touba bëgg sëriñ Touba ak nekk taalib sëriñ Touba soxna si dafa jaayoon njuréelam jënde ko euh, ak taalibe mhm. kañ la ko tàmbalee nan la ko tàmbalee fan la ko doore ak fan la yegg tey Euh, waaye bala ñoo ñëw ci loolu bëgg naa nga ñëwal ma ci relation yi damay bàyyi sëñ Jibril mhm. sëñ bi ñëw na ci biographie am mhm. suñ doon wax tàmbali na ko ca kaw mais yàlla bi muy wàcce nit ñi mhm. fu mu waxee góor rek jigéen la ciy teg pour wane ne yéen yéenay sama représentant donte sant naa kenn ki mu jiitu ki ci des topp ci ginnaawam téeru kenn ku ci nga am masuliya ci eh, yar njaboot gi yarub lislaam ci teete leen te loolu soxna si bay na ci waaram ginnaaw bi Euh, sëñ bi wax na ko mm-hmm. sëñ sëñ Tuubaa ma meññ rek doy na sa kamataay waaye mm-hmm. tërëwul ñoom dañ doon taxanaat di liggéeyaat di sottiwaat ci biir jal bi ngir jàppale ko Cheikh Khadim mm-hmm. loolu moo waraloon euh, mu taxawal ay daara nekk jigéen tey ngay dem daarul waxaab ay daara yu bari bari gi xam boo ñëwoon ci relation yi da gis ni daan taxawoo sëñ Saliou daan taxawoo Cheikh Abdoul Ahad maam di xool sëñ Tuubaa ci ñoom di liggéey liggéey bu am solo ba tey jii ñu ne la tey boo ñëwoon Sénégal bindum lettre ne ku fi taxawalee xatam mhm. njabootu soxna may mënatu bintu Xaadimu Rasuul lañ mhm. koy yóbbu mhm. kon loolu day wane ne marqué na ci biir sas bi dolliwaat ci kon dama lay bàyyi yaakaar naa loolu sëñ Bay eh, dana ci indi lu bari ndax contexte bi laajul woon loolu li tax laajul woon loolu mooy tey waajuram bi bi mu fiy jógee di dem ci jàpp naa ne booba l'islam matal ko ni mu war a mate dëgg dëgg dëgg dëgg sax dana jafe ndax noteel yi nga xam tubaab bi tegoon nañ ko ci kaw nit ñi a daan liggéey lislaam di daw di sonn ngir lislaam jat waaye nag booba noon yi jàkkaar loolu ñoo bari woon doole tey jii nag buñ demee ba sikk ba am wàcc waayu tol noonu bari ki dem rek am na ko ma koy wax dem naan ma weer wi ren daa saf sàpp ak sëriñ bi mm-hmm. ma ne kon loolu day wane rek ni sëñ Tuubaa lu jamonoy gën a dox ci kanam rek muy gën a won taxawaay bi mu amoon ci lislaam sëñ Jibi mm-hmm. jërëjëf jërëjëf sëñ ab mm-hmm. xam naa sëñ Baye Cheikh dañu may rek mu teg foofu loxoom su ko defee ñu mën a ubbi yeneen gan yi defaat beneen tour euh, ñëw ak euh, sëñ Baye Guèye si la euh, sëñ Baye Guèye daanaka continuité rek lay doon. fii ñoom suñ Moutala ak euh, sëñ Baye Cheikh ubbee ñu wàcc nag diggante euh, maanaam sax May daanaka dafay consolider li nga xamante ni moom mooy relation bi nga xamante ni moom amoon diggante sëñ Touba ak borom daaru loolu benn la ci waaye ñaareel bi tamit mooy ñu ma ko ko waxee woon njaboot ju jigéen ji nga xam ne ñoom lañu teg ak jamono ji nga wax muy jamono yi contexte bu doy waar. xam ne 1925 la feeñ. Euh, dem daaru waxaab ca jamono yooyu nekk àll bu fatt te rek ak yu mel noonu terewu ko mu liggéey liggéey bu rëy bi mu liggéey diggante boobu rek laa bëgg nga nga dugg ci audu billahi min alsheytaani rajimi wa inni uhizuha bika wa surriyataha min alsheytaani rajimi rabbi audu bika min amasati sayatini wa audu bika rabbi an yaxduruun bismillahi arrahmaani barki borom daarul moot jërëjëf sëñ Jibril Ndaw xanaa dañuy door rek ci nuyu ak ziyaare ki fi toog toogaayu ku tedd ki xaadimu rasul si Ahmadou Bamba di Serigne Mountakha Mbacké nuy ñaan sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ak njabootuk Serigne Touba gépp di nuyu ak ziyaara ki fi toog toogaayu borom Darou Mouhty di Serigne Bassirou Anta Niang di ñaan sunu borom yàggal ko fi mook njabootuk borom Darou Mouhty gépp ci biir njabootu borom daarul moxti googu nag nu di ci beral ab nuyoo ak ziyaara njabootu yaa xafaara zunub cheikh sidil maxtar sëriñ cheikh aw balla te El Hadji maam Thierno nekk ca bopp ba waaye ci biir njabootu yaa xafaara zunub cheikh sidil maxtar sëriñ cheikh balla nu di ci beral sëriñ Mouhamadou Mahfous mi nga xamante ni mooy wéyal fii nu toll liggéey bi nga xamante ni way juram soxna Maymuna moo ko kon di ziara Serigne Modou Mahfous di ñaan sunu borom yàggal ko fi ci darajey weer wi di weeru koor darajey guddik laylatul qadar ak darajey alquran mi ci wàccoon sunu borom may ko fan wu gudd ak wér yaram ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal Cheikh Sidil Maxtaar ak soxna si mu liggéey ko ci sagoom di nuyu ak a ziyaara itam nag doomam di Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma moom bi nga xamante ni mooy jëwriñu liggéey bi mam dooroon euh, nijaayam jël ko def ko muy jëwriñu liggéey bi kon sëriñ Cheikh Abdou ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara waaye di ziyaara itam soxna Aïssatou Mbacké bintu mam Mamour Mbacké moom Cheikh Mahmadul Mourtada nekk ci ëttub sëriñ Cheikh euh, abdu moom gaynde fan di euh, ziyaara buntu kër yi Serigne Touba yëpp waaye di ziare ñi nu bokkal jotaay bi Serigne Am Diop ak euh, Serigne Jibril Ndaw ak euh, Serigne euh, Yaxafar Zunub moom Serigne Mohamadou Mahfous ñu ànd ak moom jóge Touba ak Cheikh Mamadou Mourtada Silla moom it ñu ngi koy ziare di ziare Serigne Cheikh Gueye Thiéré mi nu fi fekk nga xamante ni yàgg naa taxaw maanaam njàngum alxuraan mi. ak Serigne Mahfouz ak Serigne Cheikhouna eh, ak caméraman yeeg Mbacke Mbodj mi nekk ci technique bi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara eh, sa Jibril mm, laaj bi teg nga ko ci yoon eh, li nga wax ni njabootuk sëriñ bi soxna May day fésal li doxoon ci diggante borom Daarul Mooti ak sëriñ Touba borom daarul mooti fi mu tegoon Serigne Touba ku ne xam na ko moom borom daarul mooti ci boppam nunguwul woon ak njabootam dëkkoo njabootug Serigne Touba bi nga xamante ni Serigne Moudou Habib Serigne bi bi mu jàngee alxuraan bu bindub kaamilam ñu boole ko moog sëñ Ibra Fan Ñang borom daaru jébbal leen Serigne Touba ba mu demee moom Serigne Touba da ko faa téye. nee na bi mu ma joxee këyit ak daa ni ma naa bindu kaamil dama caa gaaw bind ko mbind mu rafet suqi ko sadda ko dem jébbal ko sëñ bi sëñ bi joxaat ko këyit ba ci ñetteelu kaamil ba sëriñ bi yónnee ci borom dal moo ci ni ko nañu yebalal Modou ndaw lu koy e, e, doxal ay yitteem yebal sëñ e, sëñ Jaxu Jóob sëriñ bi tey ko fa ba mu bindal ko ñeent fukki kaamil mu doog ko yeewi keroog bi mu ko yeewi doog ko fekk mu doog sëñ Tuubaa jël sa talab ndox sotti ko ko ba mu jeex mu ne ko mën ngaa ñëw yebe bi sëriñ bi xalaatee soxna Maymunatul Kubra di magi soxna may ni bind ab kaamil indi ko fa sëriñ bi woo sëñ euh, euh, Matar Samba Diop yabal ko ci borom daaru mu ti ni ko Maymuna mi dama ko bëgg jox sëñ mu rabib ba mu ñëw wax ko borom daarul mooti borom daarul mooti daf ko ni man de bëgguma am doom ji dem sawara te doomi sëriñ Touba ku yëkkati sëddiitu jëm kenn mënu laatee dem sawara moo tax bëgguma am doom ji dem sawara ba sëñ Matar Samba demee ci Serigne Touba wax ko ko Serigne Touba ni ko boo demee neel noo def naa ay doomam ni samay doom waaye soxna si borom Daaru Muxti waajurama bi nga xamante ni mi ngi ci ëttu sëñ Modou Habib borom daaru bu ko sëñ bi masaa lu mu dem njaar buy ñibbi si mbedd mi muy jaar soxna may mun a day jël ay sëri dënk lal ko ba ci biir kër gu mag gi nga xam ni fos yi ca la ñuy jaar am mbis boo xamante ni borom daaru dafa dem jaarim bi muy ñëw soxna si lal fa mu daan lal borom daaru jaar di jaar kër sëñ Mor bu Mbakke génn kër sëñ Mor Jëbu rek ñëw ci kër gu mag ñu xamal ko ni ko ah soxna may dey laloon na fa mu daan lal borom daaru wuti daal di jël sàqum fukk dem jox ko soxna si addiyey sëriñ Touba ci lim ko lalal te jaaru fa am na yoon woo xam ne itam soxna may mënatul kubra dafa ñëw ziyaare si ko néeg bii di maqaama bi mu ñëwee fekk na booba am na ay baraada ak kaas yi ñuy defar en porcelaine ñu koy wax tabax yu rafet soxna si bi mu duggee ci néeg bi bëtam yépp ci baraada ak kaas yi la ko teg bi muy tàggoo borom daaru mu ci di ñaanlu borom daaru mu ci ne ko jox naa la néeg bi ak li nekk ci néeg bi lépp addina addiye Sëriñ Tuuba soxna si daal di ni ñokket dal di jël baraada ba ak kaas ya di borom daaru mu ci li ci des delloowaat naa la ko def ko addiye Sëriñ Tuuba sëñ Matar Sàmba ni leen ah ni borom daaru nun de yée ngi nuy bëgg a jaaxal waaw lii moom lu mu doon borom daaru mu muti ni ko doomi sëriñ Tuubaa lu ma gis xemmem ko bokk joxul mu yàqu moo tax ma jox ko yàlla dogal njabootug sëriñ Tuubaa mu am ci ñett ñoo xamante ni dañuy ci Daaru Muxti muy soxna Maymunatul Kubra soxna Moominatu Bintul Xadim ak soxna Maymunatu Suxra eh, soxna Maymunatu Suxra bi mu ñëwee Daaru Muxti fekkante wu fi ak borom daaru sëriñ Bawal la moo fi nekkoon di borom daarul mooti waaye foofee mu gisoon ni waajuram fa la tegoon njabootug sëriñ tuubaa gi moo tax moom sëriñ Modu Balla ak sëriñ Cheikh Awa Balla mi dëkkoo woon soxna May bët ya ñu doon xool sëriñ Touba moom la doon xool soxna si euh, bii mu nekk daarul ma naan cofeel gi nga xamante ni Cheikh Moustapha amoon na ko ci moom tax na mu daan jóge tuuba di ko seeti Daarul Manaan kër sëñ Cheikh Awa Balla waaye booba yoon wi naqari na yoonu suuf la mu am yoon wu mu fa dem di sëñ Cheikh Awa Balla may mu na de dama koy bëgg di gis dama bëgg nga indi ko Daarul Mooti ndax mu gën maa jige ba mu jógee Daarul Manaan sëñ Cheikh Awa Balla ni ko dinaa ko indi ba mu ñëwee mu jaar ci sëñ mu raw bal la ker bi nga xamante ni bisu màggalug Daarul Mooti bâtiment boobu nga xamante ni Serigne Moustapha Ndiagne moom sëriñ mbakke Mohamed moo ko tabaxal waay juróom di Serigne Cheikh Amadou euh, Ahad ngay defaat ma sëñ Modou Mahfous moo ngi koy nettali bi Cheikh Moustapha bàyyi ko Daarul Manaan jaar ci sëñ Modou Balla xamal ko ni ko dama bëgg ñu wutal barab Maymuna mu ñëw daaru gën maa jege sëñ Modou Balla këram la ko bëggoon a jox Cheikh Moustapha ni ko loolu day baax na waaye bu ma sañoon ci kër ceer noo gii lay dëkk sëñ mu daw ball ci taalibe ga daggal ko ci biir kër gu mag gi di kër borom Daarul Muhti muy fee nga xamante ni tey fa la ñu def ma booba li ma la wax ni la euh, borom daarul na mu jàppe woon doomi sëriñ Tuubaay njabootu borom daarul Muhti itam noonu la ñu jàppe woon njabootug sëriñ Tuubaa jigéen gi nekkoon Daarul Muxti li koy firndeel mooy soxna sii di soxna may mënatul suqra boo demee kër sëñ moo daw bal la di fa fekk soxna may moom sama bàjjan sil boo demee kër Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké ki toppoon ci sëriñ Bachir moom Cheikh Abdoul Khoudous ñu bokk waajuru jigéen sunu borom moo ko teel a jël Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké soxna may mënatu suqra mi moom la ko tudde boo demee kër sëñ Ousmane Mbakke di nga fa fekk soxna May Ousmane boo demee kër ay Aydara Mbakke di nga fa fekk soxna May Aydara soo demee kër sëriñ Abbas Mbakke di nga fa fekk soxna May Munatu Bintu Abbas moom sa moom boo demee kër sëriñ Amsatu Mbakke di nga fa fekk soxna May euh, euh, euh, Amsa ki toog tey di borom daarul Muxti boo demee ci ab ëttam di sëriñ Basiru Anta Ñang di nga fa fekk soxna may mag yi sëñ moo daaw ball itam ku ci mel ni Baye Omar Diop ku ci mel ni Baye Mandumbe Diagne ak ñu jeex kenn ku ci nekk boo demee këram di nga fa fekk am soxna may te noonu ñu ko defee ci moom noonu la Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké am am soxna moom yi ak soxna moom yi dul jeex biir Daarul Muxti ak yeneen soxna may yoo xamante ni soxna may mënatul kubra dañ leen tudde kon njabootug borom Daarul Muxti yi wàccuwaay bi nga xamante ni borom Darou Mouhty euh, euh, joxoon na ko njabootuk Serigne Touba gi ba ñu ko gisatul itam ak njabootam foofe la ñu teg njabootu Serigne Touba gi soxna si nag bi mu jógee Daarul Manaan maa ngi dégg sax ki ñuy wax ni euh, ndogu li mu toggoon yóbbul ko Serigne Fallou Daarul Manaan la ko toggee waaye déedéet soxna si en 1952 la waajal. ay ganaar lim bu néew li ñu daan wooye ab gamel muy mel nim siwo tey am ak kubéer ba mu ko waajalee ba noppi ci la ko def lim ba bariwut waaye booba diggante tuuba ak Daarul Muxti yoon wi naqari na suuf la moo Moodu Awa Balla Njaay ñi di Sëriñ Mut Njaay Fati Guña taalibe Cheikh Mamadou Awa Balla bokk ci ñi mag ci turandooy Cheikh Mamadou Awa Balla yi mi ngi fi yàlla na sunu borom may ko euh, fan wu gudd ak wér-gu-yaram euh, nit ku baax la koo xamante ni euh, li mu yéene doomu aadama yi kenn xamul nu mu demee moom sëñ Modou Ndiaye Fatigu ña moom la soxna si wow ni ko dama bëgg lii ma waajalal Serigne lu Mbacké ci bisum laylatul xadar bi ma yóbbu ko Touba te ma am jafe-jafe yi warukaay booba Ahmadou Makhtar Mbow bi nga xamante ni ren lañ ko doon defal téeméeri atam anniversaire soxna booba moo fa nekk yor école de base bu daarul mufti soxna si ni ko dama laa bëgg a yónni ca mbaw nga ampal ma ko oto ndax mu yóbbu ma euh, sëñ mën njaay ñu dem ci Amadou Maxtaar Mbow ni ko soxna si day dafa am ndogu lu mu waajalal sëñ Fallu te am jafe-jafe yi war waay mu yóbbu yu ko yóbbu Amadou Maxtaar Mbow moo abal soxna si otoom ak ka ko doon dawalal soxna si sëñ Modou Ndiaye fatiguña ñu jógee daarul Muxti jëm Touba yoon wi naqari lool ba ñuy egg fekk na mu ñu guddi ba sëriñ Fàllu fatu Modou Ndiaye sëñ Modou Ndiaye nee na ma dañoo yëglu xamal sëriñ Fàllu ni ko soxna si de moo bàyyi ko daarul Muxti am lu mu la doon indil sëñ Fàllu ubbi soxna si jox ko euh, lam ko ko waajalaloon ci ndogu ci la ko sëñ Fallou Mbacké waxoon waxam ju rëy ja nga xamante ni feeñ na léegi ndax euh, ganaar yoo xamante ni ci ab gamel lañ ko defoon ub ko tey kenn ci xam naa bu fekkee euh, yaatu na danañ ci ñëw ndax mel na ni euh, man fiñ ñu ma doon wax mooy Sëriñ Tuubaa dafa am lu mu bëggoon tubaab bi am lu mu bëggoon léegi sëñ Murtada Abo Mariam dafa wax ni góor yàlla ya doon xeex badar su fekkoonte ne xeex ba ñàkkoon nañ ko kon jataay bii du am tey waaye ñaari bëgg-bëgg yooyu muy bëgg-bëggug sëriñ Touba te mooy taalub yonent bi di taalub lislaam nga xamante ni dafa demoon ba euh, euh, euh, xàll bi na ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon rappoon mu ñëw ngir yeesalaat ko bëgg a taalaat taal bi mu takk tubaab bi moom taxaw ni taal bi du fi tàkke loolu Serigne bi wax ni Eh, lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatahu alxarra wa inni ahmadu kon sëriñ bi ñëw na ngir xalaat yeesalaat ngërum yonent bi wala taal bi tubaab bi moom ñëw taxaw ni taal bi du fi tàkkee dinaa ko fay bu fekkoon te ni tubaab bi li mu bëggoon am na ko kon tey sunu jataay bi du am ni ko sëñ Murtada waxe woon màggalug Tuubaa du am jumaay Tuubaa du am jumaay Masalik du am Touba du toll nee mu toll murit yi du tollu toll nii mu toll kon tubaab ba la mu bëggoon moom amu ko waaye sëriñ Touba moom la mu bëggoon am na ko waaye soxna si itam e, way juróom woowu nga xamante am na bis boo xamante ni bii ca Mayumba garab gu fa nekk ak mango ca ba dog jotee ca xob ya la sujj sujjal ko ci gémmiñam ngir am lu mu doge bisu korite ba xese bi xam xam ngeen ko ba ko jàng jee xool di ree ba mu waree natt muurum asaka dégg nga sëñ mu Ka nee na wuroo fi xan afla man sàkka la bàmbooy def muuri koor xat sàkk mu amoon ca ndoog loole soxna si moom itam ca ndoorte la mu wut lim bu ndaw ci ay ay ganaar yóbbul ko sëriñ Fàllilu Mbàkke tey ñu dem ba kenn ci ñi nga xamante ni bii maamam sëriñ euh, Ibrahima Sarr Njaañ bi sëriñ bi di doog a woote ndax diggante ñaari gouverneur yi muy gouverneur Clément Thomas mi nga xamante ni en 1888 lañ ko fal au mois de août mooy gouverneur bi njëkk tegoo mbiri sëriñ bi moo fekkoon sëriñ bi ba mu sañcee Touba ba ci déwén sa en 1889 ni ko dàqal mbooloo bi ñu dem sëriñ bi gàttal mu digle ngir ñu sonnal murit yi sëñ Ibrahima saar Ndiagne ñoom nañu doon def Bilal ci jamono yonent bi def nañu leen ko dóor nañu leen euh, lu ne def nañu leen ko xupp nañu leen jënd nañu leen njàmbur ndax loolu waaye tey ab sëtam junni garaat la sa la la la la la sasoo moom la daan indil soxna si bu fi jógee moom la indil soxna Bali moom itam yal na sunu borom yokk ay leeram muy soxna Bali jàmbaar jooju nga xamante ni moo wuutu woon soxna Maymunatu Suxra te doon jàmbaar lool nuy ziyaare soxna Astu Mbàkke mi toog ab jataayam lépp loo xamante ni soxna si eh, maanaam soxna Baali jëf na ko ginnaaw soxna Maymuna yàlla na soxna Astu ak eh, eh, nijaayam ak Cheikh Abdou jëf jëf yoo xamante ni danoonu fàttaloo jëf yooyee jëf ya rëy na lool waaye mbirum sëñ Tuubaa mooy tey day gàcceel démb ba tax na noo ngi ñaan njabootu soxna Maymuna te feeñ na ndax soxna si li mu doon jàmbaar jàmbaar di béy ay tool laylatul xadar gis nañ ni bi mu fi jógee soxna Bali wuutu ko fi mbir ma yàgg na foo xamante ni jamono yi soxna si yëggu fa loolu nag euh, euh, barkeb soxna si sëñ Touba mooy mooy wane boppam ndax boo dee xool màggali Touba yi màggal gi Serigne Fallou Mbacké njëkk a wootee Touba c'était au mois de janvier 1947 wuute na ak màggal gi daje Covid bi te ñu doon wax danañ ko woote duñ ko woote kon e, ndogalu Serigne Touba la woon ca Mayumba ganaar yi soxna si wutoon yóbbul ko Serigne Fallilou Mbacké tey benn ci setu koo xamante ni maamam te ñu ngi doon sonn di leen dàq la bokk dana indil bis bi junniy ganaar te ba fi jógee ak jabootam noone lañ koy wéyale kon loolu mooy wane ni Serigne Touba li amul tànki gannaaw tànki kanam la am loolu e, historique la bu ma doon indi rek. waaye bu bu bu ñu dellu see bu yaatoo bëgg naa leeral lii ci ñaari bëgg-bëgg yooyu tubaab bi li mu taxawoon di man lii laa bëgg sëriñ Touba taxaw di lii laa bëgg tubaab bi ndax la mu bëggoon am na sëriñ Touba ndax la mu bëggoon am na ko wala déet sëñ euh, ñàkk leeral ci diggante soxna May ak Darou li nga ci leeral nii am na ñu bari ñuy seetaan ñoo xam ne xamuñu ko ci woon ci diggante soxna May mënatu Kubra soxna Moominatu ak soxna Maymunatu Suxra te jàpp naa ne loolu day wone rek cër bi ba daral mooti am ci Cheikhuna Ahmadul Xadim euh, ndax euh, bari ma jàpp liñ tàmm dégg rek mooy sëñ Fallou nee na maag sëñ bu saa saa bàyyi Cerno doonoo yar baat boobu rek lañ lañ yàlla dégg waaye am na ñeneen ñoo xam ne itam sëñ Tuubaa leen a cërale woon borom daru euh, mu nekk lu am solo Baye Cheikh bala ñoo ñëw ci dañoo bëgg ñëw ci bala ñoo ñëw ci dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg njàngum alxuraan mi ndax waxtu waa ngi dox Euh, li ñu bëggoon nga leeral nu ko mooy lan nga mën a fàttali ndax soxna si euh, ni ñu ko waxee léegi bi ñu ubbi li ko ci gënoon yitteel mooy alxuraan ji ak bernde yi mu teel ko engagé na ci jamono joo xam ne ku ne xam ne ne boobu jamono melut ni mel waaye mu taxaw taxawaayu góor fexe ba atteindre loolu nga bokk ci ñiy séddale li nga xam mooy alxuraan ji tey lan nga noo mën a fàttali ci soxna si balaa nga noo ñëw ci méthode bi ñu leen daan jàngaloo alxuraan ji ak ni mu ko daan tasaare ci daara yi fexe ba fu nekk itam ndabam daan fa dem lépp rek mu jublu ci dundal guddik laylatul xadar bàyyi cheikh ngi téere aouzu billahi mina sheytaan rajim wa inni unisuha bika wa surriyataha mina sheytaan rajim rabbi aouzu bika min hamazati sayatini wa aouzu bika rabbi an yahdurun bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayyidina mawlana muhammadil makin wa ala alihi wa bi xayru xadimihi zabi ridwan wa tamkin saddid lisaani dawil janaani safi amaani wa sidaraay barkab cheikhul xadim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi nga xam ne ñi ngi ñuy teewlu ci jataay bii nga xam ni muy jataay bu tedd di jataay bu am solo te bàyyi ko ci sun ndigalul kilifa Cheikh Mouhamadul Mahfous nuy ñaan di jiital ci sunuy ñaan jëwriñi liggéey bi liggéey bii maanaam Cheikh Mouhamadul Mountakha mii tey jëwriñ na ko jëwriñe na ko ay at yoo xam ne soxna may da ko def jëwriñ mu mu jiite liggéey bi ci njàngum alxuraan mii ñuy wax ak njàngum xasida meek lépp moo ko daa jiite ba tey jiit mooy jëwriñ ji kon ñoo ngi koy ñaanal moom Cheikh Mouhamadul Mountakha sun borom gën ko fee bàyyi mottali ay yéene ma ki naalam gën a guddal aw fanam te dolli ko wér bu baax a baax te dolli ko defal ngi saayir ak baatin ba yéene ji mu am ci liggéey Sëñ Tuubaa ñu defal ko ci lu fa waxoon njortam te te nu ànd koog moom ndax jëwriñ ñi liggéey bii nuy wax lépp lu soxna si daan def moo ko daa jiite ba tey jii sun borom def tawféexe mu jiite nag liggéeyam naa Seexul Xadiim bi yàlla na gën a yàgg te gën a yaatu te nu yaa ko ànd moom mu mel ni ki li nga laaj léegi ginnaaw bi nuyoo ñi nga xam ni ñëw séq jataay bi tàmbalee ko ci Cheikh Sidil Muxtaar mu Cheikh Mouhamadou Mahfous ba ci sëñ Mourtada Silla sëñ Jibril Ndaw ba ci sëñ Amidoun Diop ba ci sëñ Baye Guèye Silla ba ci ki nga xam ne sunu sunu sunu sunu lépp la muy sëñ si Seexuna Ndaw ba ci sëñ Mahmoud Mahfouz Sylla ak ki nga xam ni mooy jëwriñu liggéey bi ci barab bi muy sëriñ Bakki yu fay ak ñi ànd ak moom liggéey bi yëpp ñu ngi leen sant ci turu Cheikh Mamadou Mahfouz mu mel ni ki nag ci tënk ci li nga wax nii soxna si boo koy jàngat muy soxna Maymatu bintu Seexul Xaddim soo koy jàngat dana la yéem waaye nag du la yéem soo koy jàngat dana la yéem waaye du la yéem waaw booy jàngat fi fi liggéey bi noonu lañ xam bu fi mu ëgsi soo koy jàngat dana la yéem waaye du la yéem ndax dana la yéem mooy taxawaay bi mu taxaw góor taxaw na te mënu ko taxaw ta mënta taxaw boobu taxawaay te suñ boroom dogal muy jigéen loolu dana la yéem waaye du la yéem mooy kan mooy di way juróom mooy cheikh mu cheikhuna cheikh Ahmadul Xadim ñan ñoo ko yar mooy diggante ñaari jàmbaar yi mooy cheikh Mamadou mustafa au Cheikh Mamadou Fadal seen diggante la yaroo te ñaar ñooñu Cheikh Mamadou Fadal netti na ni sëriñ bi woolu na leen ca Jolof moom wala Cheikh Mamadou Moustapha moom sëñ ma sàmba sëñ ma roqo yi busa ba mu lee wooloo ba ñëw ndax ñetti tànk lañ taxawee yoo xam ni jëmm joo gis muy dem ci bokk ni ñoo ñoo ko gën a jege ci wàllu góor muy doom ak rak jabaat te ñett ñii la woolu Cheikh Mamadou Moustapha doom la Sëriñ Fallu doom la sëñ Masamba rakk la sëñ moo roq yi bu sa jarbaat la mu wol leen nii dama leen a bëgg na dimbali dama leen a bëgg a dimbali moom sëñ Tuubaa ñun tekk di ko déglu mu daal ni man de du ma bàyyi kenn kon day mel ni ku doon tuddoo doom ci jooju wax génn nga teg ni du ma magi kenn kon ku doon tuddoo rakk day mel ni génn nga teg ni du ma nijaayi kenn dan ni lii nga xam ni moo ne fi man ku mu yitteel te tax laa jóg nga xam ne loolu mu séddaliwut ku mu yitteel rek la wax te mu tax laa jóg muy jaayante gi soo ñëwee te muy dëgg ci yow may sa baay di sa ndijaay di sa mag ku mu taxut a ku mu taxut a jóg nag séquma ak yow dara ñooñu daal di cay dégg nag ni kon fii li fi ne ak njureel ak sama ndijaay ak sama maga jëlewu ko fi maanaam ak jaayante moo ko fi jëlee ci lañ dem nag jaaju ku nekk jaaju jaaju mooy wolof day wax ne bu ñu waxee dara nga dem jaaju mooy dem fabuwaat menam fabu moo xam ne bokkut ak ni nga ñëwee woon ñëw na kenn ku ci ne jaayanteek moom li nga xam ne moom nga doon tudd seen diggante ñi doon tuddoo doom jaayante seenu seenu seenu seenu taalibe seenu seenu njureel jaayante ko jënd ko ak taalibe ñi doon tuddoo rak ñëw jël seenu mageel seenu rakkeel mageel gi jaay ko jënde ko ak taalibe ñi doon tuddoo jarbaate jaar foofu ñooñee nag ñoo ngang soxna si muy diggante Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Mouhamadou Fadil ndax foofee lañ tànge loolee ñu tàngoon nag ci lañ ko sottil mu amee pas-pas boobu nag moom soxna si nekk ci seenu ron ñu di ko yar di ko tette di ko yar di ko tette ba mu xàmmi ko ba xam nag li ko tax a jóg yàlla dimbali ko nag pas-pas bi njëkk mooy maanaam bëgg sëriñ bi ndax ak bëgg moom bu xësee am maanaam dootoo yëg dara looy def ci yëg nga ni def nga dara ndax bëgg gaa koy lal bëgg sëriñ bi jël njuréel gi jaaye ko jënde ko ak taalibe fas yéene na di ko liggéeyal am tawféexi nag pas-pas boobee amoon mu aman mu am tawféexi nag liggéey bii mu door ko ni ko sëñ Mbay Géey si la waxee léegi tàmbalee ko ci yaari ginaar la jëkk a defar ni ko nettali rek léegi rek yët ko sëriñ Fallu wax ko ni def am pas-pas liggéeyal ci sëñ Tuubaa sëñ Fallu it ñaanal ko ni ko ni ko ñaari ginaar yi dana dem ba ba ba ba ba romb ay gëléem loolu yëpp dem nañ ba teg seen bët waaye nag njëlbéen ga musta yokkat saa bu saa bu asamaan setee ñu fanaanee màggal laytu xadar bu asamaan setee soxna si am na pas-pasub waaja ci bis bii ci topp ci lay waaja bis de yoon bi noonu la ko doon doxe maanaam di jàng alxuraan ci njëlbéen nga xam ne waxtu wu ne mi ngi jàng alxuraan di ko addiyal Sëriñ Tuubaa ba jëmmi jamono mu xool ni loolu doyatul tool bi muy bay ak bëggam xam na ni bë Sëriñ Tuubaa alxuraan rek muy bëggam tool bi muy bay mujj na tool bi bu ñoree benn dërëm du ci génn fen lépp da koy dajale di ko waajale laytu xadar ni mu koy laaje waajal laytu xadar nag mooy su ñëwee daare alxuraan yi li tàmbalee ci daare kaamil ju mag ji di jumaay Tuubaa lay tàmbalee daara yi ni ci biir dëkk bi daara yu mag yi nekk ci biir dëkk bi ba daarul moxti ba poroxaan ba naawel fu fi fu fi daara ne ak daara yi nga xam ni xam nañ ko ñëpp dañ bindulu su leen binduloo moom ci boppam xaalis boobee nga xam ne bayan mbay ma la ñore woon lay ne daal di koy tàmbalee saam daara sàngam jumaa ji lay tàmbale nañ leen jox nàngam ñu bind daara sàngam nañ leen jox nàngam ñu bind daara sàngam nañ leen jox nàngam ñu bind daara sàngam nañ leen jox nàngam ñuy bind ba loola mat ñu topp leen nag ci bu weer feeñee rek daal di tàmbali nag def ko ci ay enveloppe di ko seddale noonu la kon tàmbalee waaw ci daara yi léegi maay doomi sëñ Tuubaa rek nañ ma jàngal alxuraan doy na am na ñoo xam ne buñ ne soxna may yónni bëgg a jàngalu alxuraan rek doy na sëkk ci ñoom ci ab cër waaye moom mu jàpp ni nag lii muy def nii dafa am lu mu ci war lool diiru lim fii ne tool yi moom bu ñoree lu ci mën a ñore ak mu toll loolu moom ci jàngkati alxuraan yi la jëm su noppee nag mu nekkaat ci waajtaayu nag di yar di yar nag diggante ay gàtt ak ay ginaar lu waajal bis bi rek nga xam ne at mi yëpp loolu mooy doon itteem nga xam ne bu bu bis bi nga xam ne mooy doon bisub laylatul xadar ñiñ joxoon enveloppe yi kenn ku ne li nga jàng ci alxuraan da nga koy indi ñii jàng naa nangami e, e, téeméeri kaamil ñii jàng naa nangami nangam ci ay kaamil nga xam buñ ko dajalee ay nangami junni kaamil lay doon loolu di ab soññee loolu diiru lim fi ne loolu jiital mooy jiitu ci laytu xadar gi saa bu weer wi teroo rek bis bi jëkk ñi ñi war a jàng alxuraan moom kenn ku ne yaa ngi yaa ngi dégloo ndawul soxna may ngir mu ëgsi ci yow loolu itam ci lu nu mën a seere bi yàlla dogalee ñu di ko ànd ak moom di ko ànd ak moom ba noppi koo gis njabootam gii fi des daara yooyee fu ko soxna si bàyyi woon man leer na ma ne dolliwaat nañ ci ñett maanaam fu ko soxna si bàyyi woon ñoom dolliwaat dolliwaat ñett wala wala ba ñeent sax ci loo xam ne xam nan ko ndax fa mu fa mu yemoon ci limub xaalis ci lim daan joxe moom wóor na ma ne dolliwaat nañ ci ba ba ba mu àgg ci ñeent ci fi ne nii waaw nga xam ne saa nun ñi di ku ñuy wax alhaji tàndine ku jàmbaare la daaru waxaab la dëkk waaye fii lay liggéeye ak ku ñuy wax sëñ Ousmane Samb doom sëñ alhaji Mbàkke Samb ku jàmbaare la nun ñii la sëriñ bi tànn nga xam ni sax bu weer wu terew bu desee ay fan rek lañu tàmbali di di di seet nu ñuy war a euh, mën a séddalee liggéey bi nga xam ni bu bis bi da dañuy séddali ko ay pàcc te bu njëkk kenn ko daan dox wala ñaar waaye léegi dañuy sëj séddali ko ay pàcc yoo xamante ni kenn ku ne di nga xam wet gi nga war a jaar ngir maanaam am na ci ñoo xam ne sax bu see bu ndaw li see nun ñi ndaw yi dañuy wax ne la ñun ci biir baraxlu lañ lañ tàmbali lañ tàmbul liggéey bi waaw aha kay lii may wax nii def nañ ko ba noppi maanaam fii ne bi bi weer wi teru ci bis bu njëkk bi bi weer wi feeñee ndax kere biñ ne ñaar fukk juróom ñeent daje nanu séentu ko weer wi feeñul muy fan weeri fan fanweeri fan yooyu ba bi bi bi bi bi weer wi feeñ fekk na lépp sotti na ngir ñu war koo ci bis bi nga xam mooy bis bu jëkk bi ñi war a jot ñëpp maanaam seen i addiya jot nañ ci waaw fi ne ñu ngi ci biir njàngum alxuraan diggante diggante kajoor muy muy muy muy li wër mbaakol ba ngaay ba Thiès ba ndakaaru ba ndakaaru ba ci kër sëñ Mourou Moussa ga ca Dakar sax danañ jot seen dañ jot waaw waaw bu bu ko defee nag euh, bis bi nga xam ne mooy bisu Laylatul Qadr nag lu ci waay jàngoon nag indi ñu di ko dajale waaw ñu di ko dajale li ci ëpp man maa koy dajale euh, euh, sëñ bee dana am ko ne ci wetam koo xamante ni ku ñëw bind ñu xam ne daaray kaamil la nangami kaamil nga am bu ñoppee buñ ko seetee ay junniy junniy kaamil lay doon yoo xam ne jàng nañ ko waaw su ko defee itam wàllu li nga xamante ni mooy wàllu beer yi dañoo ànd ñoom ñaar ndax fii ne bisu laytu xadar fu ñu fu ñu yóbbu ab bataaxal danañ fa yóbbu nag bisu laytu xadar gi maanaam bu ñu xëyee danañu taal defar benn yoo xam ni balaa miiree jot dana sotti nga xam ne fu ñu yóbbu bataaxal ak fu mën a doon bu dee ci biir dëkk beeg daa génn dëkk beeg fu mën a doon fu ñu yóbboon bataaxal rek maam danañ fa yóbbu ndabul bernde daaw bi jafe-jafe yi amee nga xam ne togg gi moom dañu noonu teewul daaru waxaab la sëñ Muudu Mahfouz joxe ndigal ñu defar fa li war a defar lépp maanaam def ko def ko ci ay barab ak yam war a àndal ak dara ci ay koppar ku ci ne ñu dem yéet la ni la léegi nga defaral sa bopp waaye ñoo ko daan ñoo ko daan saytul suñ bopp waaw mu mel ni ki mu mel ni ki nag loolu diggante sëriñ bi ak soxna su tedd si di soxna maam Busa ànd koog njaboot ki ak Cheikh euh, soxna Astou ba ci ba ci ba ci sëñ naa sëñ Cheikhouna bi fi soxna si doog jóge ku jàmbaare woon ci liggéey bi sëñ naa jarbaatub sëriñ bee soxna maam Faati mooy waajuram yàlla dogal bi mu wàccee sëñ Cheikh Abdou taxawaat taxawaay boo xamante ni matali na ko sëkk ci wet gi nga xam ni moo moom la war a taxawe ànd ko woy juróom bi di soxna maam Boussa waaye nag mu mel ni itam soxna si bëgg gi mu bëggoon ñii di ak njabootam bi soxna maam Boussa mii làqoo itam dafa sëñ Moodu ma foos ci la gën a fettaliwaat ak laxasaayam ci taxawaat ànd koog ñii nga xam ne ñoo njaboot gi ba bañ dara man ci suut ndax bëggul mukk benn yoon liñ doon def ñu ñu ñu ñu ñu da dara wàññiku ci waaw kon nag loolu euh, waaw waaw. Hmm, man damay wax rek ne nataalu soxna Aïtou soo soo ko xoolee wala vidéo rek même boo xamul fu mu bokk rek di nga ko naw ba noppi balaa ngay balaa ngay balaa ngay jaxasoo euh, ku yàgg kër sëñ Saaliw boolub soxna may bi yàgg nga ko laaj genre ñoom sëñ Afita Ban gi boolu soxna may bi yegg seegul bu ma saan yow ci sañ Saaliw eh, reetaan bi ak melokaan moo tax dañ koy topp ba ni muy duggee ci oto bi euh, mu nekkoon koo xam ne nii euh, ni ñu ko gisee ci image noonu la meloon foo ko fekk soxna saa ngi ree waaye nag soo ko jegee rek yëg ni kii cërub sëriñ bi la ndax taxawaayam bi mu amoon solo ba pare mu marqué empreinte am tamit ci doxalinu réew mi ci yu baree baree bare yoo xam ne daana ci teg tànkam di jug di ko lijjanti di dox waaye nag fexe ba mu méngoo ak ni ko sëñ bi bëggee euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacke euh, Gaynde Faan sëñ euh, daam xam naa ak sëñ Mbacke ñu ngi koy jéem a jot sax téléphone pour mu tàbbi ci jataay bi ndax moom daf maa nit lu doy kéemaan dafa wax ne xam moom Cheikh Abdou Bali wàcc naa aéroport Canada def directement Daaru Wahab fekk soxna si ci tool dem di ko attaayaal li gënoon lim gënoon a suuxat ak njabootam mooy ak murite loolu ak tarbiya loolu bokk na ci yaakaar naa bari na tey ñoo digg ñuy tudd ñuy tuddee soxna may wala soxna may ci biir kër soxna may googu la ñu jànge seen lépp fi la ñu xamee mboolem doxalinu daara moo tax yàlla dolli ay leram euh, soxna baal itam ni ñu ko waxee léegi taxawoon na ci taxawaay xam ne nii kéem su ma mosaan ñëw saytu xadar fekk nit ñi wër ko di jébbale sa xel mi yëpp day dem ci soxna may te loolu taxawaay bu am solo la waaye kii mu fi bàyyi di sëñ Modou Mahfouz nga xam ne damay faral di wax ne daanaka néewaana fo sa dégg kàddoom laylatul xadar ngay gis ne maanaam yitteem yëpp mooy te defu ko lu dul dabu ci bànneexu soxna si yàlla na ko yàlla gën fee yàggal gën ko wéral euh, may ko mu yeggale euh, xam nga xam nga xam nga xam nga Cheikh euh, du ma ko mën a sànni xeer ndax yow da ngay waa daaru ko dos waaye su ma ko bëggee jot ci lu dul su ko ne sëñ dañu invité ma bàyyi leen ba koor ndax koor geeg màggal gi daal moo ko ñor xam naa ni ko soxna si ñaari woon loolu daal ñaari ñor wax dëgg yàlla mu ci def liggéey boo xam ne ni bu ama am solo la surtout élargir communication bi boole ci ñëpp ubbi ko ba noppi organiser ko d'une manière boo xam danañ mën di fàttaliku soxna si waaye itam danañ mën a tegu ci li xam mooy contexte bi di ko def ay thématique di ci boole borom xam-xam mu nekk lu am solo loolu moo tey tax moo indi tey borom xam-xam bari bokk ci biir laylatul xadar di ci yëngu-yëngul woo xam ne ni bu am solo te di du wute itam ak doxalinu soxna si maa ngi siyaar baax Adja Betty Madior Pouy di koo xam ne ni kenn la woon ci soxna may mënatu ndax daana ma wax ne ma euh, dafa may wax ne ma su ma su si noppee rek maa ngi toog ci wetam am na at yu bari man la koy jox ma téye jóg waaye su duggee di ko naan aj euh, bitti maa mun ko damaa bëgg ngeen jàpp ci lekk gi te xam ne mooy sama cër kon nag loolu euh, képp ku ci feeñ rek xam nga nag ñu bari dañuy wax contexte bi contexte bi waaye ren moom incha allah Euh, bëgg nañ ñëpp ñëw nag màggal si ko ndax nag laytul xadar wax dëgg yàlla ni ko si la waxee guddi la goo xam ne nii yenn yat wuy wuy wuy ñaar lay doon di nga eh, si ci lim waaye di nga lare itam sun borom ci xéewal yi nga xam ne na ko ci guddi sañ jéego xamante ni moom la sëriñ bi tudd mhm. nga soxna may dafa réussir li sëriñ Saaliwu réussir si ndaw ñi ci góor ñi da ko mhm. réussir jigéen ñi mhm. lu yaatu boo demoon këram fekk ñoom soxna may njaay ñi nga xamante ni jolof fu nee lañ daan jóge maanaam may mu nekk da nga ci biir ci ci biir këram tàmbalee ko ci soxna may moom Cheikh Mahamadou Fadel soxna mayam sëñ Abdou dër bi soxna may ñu wër ko mu entouré mais yeneen soxna may yoo xam dañu ko mu tas ci àdduna bi tey jii nii turandooy soxna jaara yi mel. ca ca Porokhane moom da cee am lu mel noonu. soxna baal yi tamit sofaat ci mu am baali yoo xamante ni ba ñëpp ñu yar leen tarbiya leen ñu nekk organisation boo xamante ni kenn ku nekk fa nga nekk danga fay nekkal soxna si. kon loolu beneen liggéey la boo xamante ni dafay feeñaat ci biir liggéey soxna May waaye mu nekkoon koo xamante ni ku fonkoon taalibe la ak murite rawatina jànkatu xaside yi wax moo tax ma bëgg a profité rendre hommage saan Abdoulaat Say Guèye ndax si keppaar googu la waa ñu ngi koy ñaanal ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax ndax bu ñu ko mosaan fekk foofu ci kër soxna si soxna si léeg-léeg sax benn bayit rek comme buy jàngam egsi si biraasu man baarasi soxna si danaan ko kii ko nga xam ne taxaw yendu di di wax bayit woowu rek te du nangu mu jàll kon yooyu yëpp nag day wane taalib yi gi nga xamante ne amoon na ko ñuy ziar nag bu baax a baax soxna Bali te di ko ñaanal moom it ndax nun dëgg yàlla soxna si daan nañ ko siyaare waaye nag bu ñu demee ba miin dëgg dëgg keppaar gi moom ci soxna Bali lañ ko mu nekkoon suñu wayjur nekkoon suñu xarit nekkoon suñu lépp daañu taxawu ci waa fànn fànn fànn bu nekk waaw waaw waaw xam nga soxna soxna may moom jox na ma suukar ba tey waaye nag soxna baali moom <laughs> ndeysaan waaye ziar tamit sëñ naa bu baax moom it ñaanal ko suñu borom ndax moom a njëkk yóbbu daaru waxaab waaw moom it ak way jëram soxna maam faati ñoom ñëpp ndax euh, entourage ba ci sëñ isaaxa moom ñu fàttali ko ko te ñaanal ko bu baax a baax kon ku fonkoon sëñ koo xam moom daa dudd woon moom mu nekk woon saan ci dara kon ñu ngi koy ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax foofu nag laay duggee rek comme ni nga wax dellu siwaat ci euh, sëñ murtada sëñ murtada ba tey ñu ngi ci principe bi ak philosophie bi nga xamante ni moom la Sëñ Tuubaa doon doxee ndax Sëñ Tuubaa dafa dafa doon xool lenn lu nekk parce que boo ko seetee bu ñu jëlee laytu xaddu teg ne jël kasu rajab teg ne jël nisu sawbaan teg ne jël kii Sëñ Tuubaa dafa fexe ba peeg yëpp teg ko sóob murit yi suñuy fonk bi si sob leen si ñuy jaam yàlla sóob leen organisation boobu Sëñ Tuubaa defoon moom laa bëgg nga nga nga ñëwaat yi ñëw yi tamit nag ci soxna yi rawatina nag taxawaay bi nga xamante ni ñoom it am nañ ko ci yar bi ndax bu bu bàyyee euh, ñoom ñu mel ne sëñ Saliou ak sëñ bi ñi nga xam ñoom lañ tollool lañ doon liggéey ñoom it ci góor ñi soxna May ñoom soxna Fatou Dia ak ñoom it doon ko def ci ci wàllu yooyu moo indi sax concept bi ñuy wax saa bàjjan ak yu mel noonu loolu tamit na nga dugg ci. Mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf mbokk yi jël kat yëpp macha allah wax ji am na solo. Euh, sëñ Jibril euh, li nga wax ne loo tudd rek daanaka ci lu am solo ci lislaam sëñ Tuubaa da caa feeñ loo tudd rek danga gis kenn ci njabootam ku ko ku ko màggal wala ku ko gën a feeñal feeñal goo xam ne da ci doon dàkk bëggug sëriñ bi loolu xam nga fu muy dellu la mu waxoon ne wasunatahu insha rabbi ubayyin ak lil Moustapha nawaytumaa yu jët dafa ñëw ngir yeesal yëpp bàngaas yëpp ba yeesalee ba noppi loo tudd rek Euh, soxna yi tedd yi la tàmbale soxna Fat Dia ba ci soxna Maymuna la tàmbale Cheikh mu Moustapha ba Cheikh Mouhamadul Mourtada ak Cheikh si loo tudd ci lislaam rek loo tudd rek sa dana am ku dem ci wàkkar Serigne junj na ko léegi loo tudd rek loo am solo ci lislaam rek lislaam sax lépp am solo waaye loo tudd rek sa xel dana am ci lu kum dem euh, bi ma digloo waxtaan yi mbokk yi wax dafa am lu ma jàngate daal ci soxna si mooy ne am na lu mu lu mu jël ci ku baax ki Seexul Xadiim waajuram mu tedd wi sëriñam loola mooy sëñ Amidun alhimmatul aaliya rëy yitte ndax bi muy jóge daarul mooti defar rek boobu noonu ba noppi jamono jooju dem ak dikk jafe woon na lool njabootu sëriñ bi sax am na ci ñoo xam ne waruwaay amuñu ko woon waaye yitte ji yëpp mooy ki fi nekkal sëriñ Tuuba barkeelu bii ne ko téye na ci barkeelu na ci xéewalu loolu lépp nag dafa mel ne doon wër bëggu sëriñ bi fan laa ko mën a amee mu gis ne sëriñ bi ku bëgg yónent bi la gis ne sëriñ bi it ku bëgg alxuraan la te wax mi wax ci alxuraan xamuñu fu koy wax yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili wa kunta xablu tabibi anta izzi wa mafxari anta jaahi anta kansi yaa faxra kulla labibi yow mi nga xam ne yaay téere bi yàlla bi yow yaay sama xarit yaay sama soppee yaay sama maa yaay sama tedd nga yaay sama li may yaay sama puukaréew yaay sama daraja yaay sama fàggutéef xeeti waxin yooyu noonu ak fonk gum fonkoon alxuraan ak taxawaay yu ci taxaw mu ne sëriñ bi naa ko liggéeyal fii ci alxuraan yitte ju kawe ji mooy wane ne diggante daarul moxti ba mu defee loolu ba noppi ñëw ci Cheikh Mahamadou Fadel nga xam ne ñaari ginaaram yooyu xeebu ko rafetuk yéeneem ak selluk yéeneem moo ko may tey lii mu am te yëmut sax ci dàkku bëgg sëriñ bi rek ci màgg la laylatul xadar si ñaar wax na ko léegi niiwaana nga gis fotob soxna mu te doo gis ab kaamil ca loxo ya kër yi mu dëkkoon yëpp bibliothèque ba lam daa fees bibliothèque lay doon koñ ba koñ boo xam ne ay kaamil la ciy def ci kaw ba ci suuf yaakaar naa sëñ seex sëñ sëñ Sidil Muxtaar bu dul daaw di daaw jéeg ñoo doon yeesalaat kaamil yi di ko defaraat man li may yéem mooy lu mat daanaka junniy kaamil yoo xam ne ci benn saal la xeeti mbindin yu ne xeeti riwaay yu ne yii na sëñ bi doon def di jënd di denc yii dañ koy bind yii di ko bindul da ciy gis kaamil yoo xam ne ni ay bind yi loxo lay doon yoo xam ne lenn ci njaboot gi lay doon da gis sax mbind yi jigéen yoo xam ne ci maymuna yi ci kër gi la dañ ci gis ay riwaayaat yoo xam ne ay kaamil lay doon yoo xam ne da koo jëndoon denc ko loolu li ko waral mooy anta kanzi gi sëñ Tuubaa waxoon sama kan si mooy alquranul karim te it fële ci njaareem sëriñ bi bokkoon na ci yittiwam ci alquran mooy daana jënd ay lim yu baree bari yu takkoo takku di ko denc daana bind ay lim yu baree bari daana jàngulu ay lim yu baree baree bari moo tax suñ Cheikh Gueye yu ñu ne ko léegi soxna su xamuñu ci histoire l'islam sëñ Jibril soxna soo xam ne nii dana waajal lu mat nangami junni kaamili alxuraan di ko wàcc xamuñu ko soxna soo xam ne nii boo duggee ci këram yi am na kër goo xam ne nii kërug alxuraan la ko tuddi mooy kërug laylatul qadar fala cheikh Mouhamadul Mahfous yàlla na yàlla guddal fanam nekk ba yeesalaat ko muy barab boobu noonu kër goo xam ne boo fa duggee saal bi boo fa toogee bayit boo bayit booy gis alxuraan wala laylatul qadar doo gis sax benn benn meebul boo xam ne luy rafetal kër la loo fa séen rek bayit boo xam ne anta kanzi anta jaahi loo xam ne lépp ci alxuraan la wala sax saaru inna anzalnaahu fii laylatul qadr ngay gis ñu bind ko ci saal bi mu wër wala ay kàddu yoo xam ne boo bëggee mu bëgg boo ñëwee di ko siyaare indaaleel kaamil alxuraanul karim bu ñëwee da ngay daal di gis mu koy jël ci loxo loxoom ubbi jàng bég ki lool kon loolu lépp day wane yitte yitte ju kaweeg soxna si loolu nag yàlla na ko ci fay ndax bi sallallahu alayhi moo ne man sanna sunnatan hasana fa laha ajraha wa ajra man amila biha ila yawmil qiyamati yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne ku xotti wenn yoon woo xam ne yoon wu baax la ba nit ñi fekk la ci wala ñu jëf ci lu baax na nga xam ne da nga am tiyaabay yow mi ko jëf ak ku jëf-jëf joojo ila bitin siñaa bi dun ñaata nit ñooy màggal laylatul xadar ci barkeb soxna si su weer duggee waa kër soxna si ñooy njëkk annoncé laylatul xadar waa kër soxna Maymuna ñu njëkk a woote ne laylatul xadar bi sàngam lañ ko jàpp waa kër soxna may Maymuna ñooy njëkk a sasoo ne laylatul xadar gi nii ci ay ayu bisu laylatul xadar gi mboolem lu nit di jëfandikoo ci ñam ak lu ma di doon ñoom ñoo koy sasoo ñaata daare alquran lañ ciy teral yoo xam ne nii dañuy wàccee kaamil ñu leen teral ci alal ju takkoo takku joo xam ne nii euh, la barkib laylatul xadar gi lañ koy amee loolu lépp nag tiyaaba jooju tey delluwaat soxna Maymuna kon day mel ne ñaanuk Seex Mahamadul Fadl delluwaat na ci moom gam ba mu ñëwee fekk sëñ bi fatu ci yitte ju kawee ji moom ak li mu doon doon doon ndaw ci zahir li mu doon doon doon jigéen ak li nga moom la doon xoolee Cheikh Mamadou Fadal ak Cheikh Mamadou Moustapha muy euh, bëti waajur te fexe na ba jàkkaarloog sëñ Fallou ci guddi googu fexe na ba barkeelu ci làmmiñu sëriñ Fallou li ñuy bokk bokk waajur mu ñaanal ko ci bis boobu nga xam ne moom lay waajal muy leeratul qadar kon lii nii euh, sellug yéene moo ko waral mbir ma tàmbali ba bu ca daray àdduna raxoon wala dara joo dara loo xam ne nii rek du dara yàlla rek dañ ci gis fay waaye ba fi soxna si jógee ba ba ba tey yàlla na ko yàlla dolli leer soxna bari ak sëñ Mourou foos bi ñu fi nekkee yëf lépp ci côté yëpp fànn yëpp dafa yokkuwaat dimension bi léegi dafa gën a rëy sëñ Abdou Lahad Gaynde Fatma mu ñëwaat gën koo xam-xameel nga xam ne semaine bu Laylatul Qadr bi plateau télé yeeg site internet yeeg borom xam-xam yi jàngat ay xeeti thèmes yu am solo yoo xam ne nii xam-xam da cee juddu ba ci laylatul qadr boobu commission bi nga xam ne ñooy taxaw taxawal laylatul qadr gi àgg nañ ci bindub téere boo xam ne euh, suñu yor na ko téere boo xam ne mbooleem conférence yi nga xam ne mooy jiitu woon ñu dajale ko bind ko waaye bindaale ci it jaar-jaari soxna ci ci arab ak ci français ba yi nga xam ne yooyu conférence yi nga xam ne it euh, mooy weesu woon it yooyu yëpp it ñu ngi ci ay liggéey yoo xam ne nii day wane ne dimension laylatul qadar léegi mi ngi gën a kawe yaakaar naa soxna si euh, bég na bu baax a baax a baax baax ci liggéey bi ni mu toll léegi ci wàllu dimension xam-xam bi waaye ci wàllu daara yi ni mu toll ndax bu ñu xoolee kaamil yi ñu ci njëkkoon a wàcc ba tey sëñ Cheikh bu ñu waxoon daaw lañ wàcc woon ak ren jii lañu wàcc waat da ngay gisaat ak yokkute bu baax a baax a baax a baax loolu lépp seetlu yéene gi la liggéey bi euh, barke bi nekk ci ba teg waaw bu baax a baax a baax moo tax man la dimension ci wàllu xam-xam bi wax dëgg yàlla li nga koy xeer li koy ma ne ko li li nga koy sànni xeer lépp nag wax dëgg yàlla da cee ah, jàmbaare lool lool lool lool sëñ Jibril jàmbaar na ci lool wax dëgg yàlla <laughs> waaw waaw ci dimension xam-xam bi liggéey na ci liggéey bu am solo waaw dafa am vision daal dafa waaw waaw waaw maanaam moo tax gise ko dégg nga ca yàqu dara ci diine ji ni mu nekke woon ak mm-hmm. barke bi nañ ko doon doxale baatim bi dañ mm-hmm. ko doon doxale loolu lépp mu dëppoo ci ak mm-hmm. nijaayam Serigne max Mahfous moom it mu ne ci ginnaawam di ko ci jàppale baax a baax a baax a baax mbooleem lu ci war a def loo xam ne nii ab cëram la bu mu war a def moom. ma jul boppam loo wax mu ree du mer def dara du def dara loo wax rek am solo mooy dafa jël lépp bàyyi commission bi. waaw ko ci yéen mm-hmm. wóolu naa leen xool leen lu ngeen di def. ngeen ànd ko Sëñ Sidi Moxtaar lu ngeen ci def mm-hmm. loolu ànd nañ ci yéen. kon loolu lu am solo loo xam ne euh, ci barkeb soxna si la. Mm-hmm. kon daal li ñuy wax lépp am na lu ngeen waaj ren parce que am ay plateau yu am nay plateau yu jàll yu bëree bëri ci mën naa ne ci télé yu mag yi ci Sénégal yëpp amaan na plateau bu mag a mag a mag bu ñu waajalal boo xam ne ba lay doon buñ nee suba la laylatul qadar mm-hmm. boobee ñu ngi ki war a waxtaanee euh, rôle bi nga xam ne kilifay diine yi ñu ngi koy liggéey ci wàllu social ci njaboot gi mm-hmm. euh, ñu war cee ànd ak Serigne Sam Bousso Serigne Cheikhouna Abdou Serigne Fallou Bousso Hassan mm-hmm. Serigne Cheikhouna Mbacke Mouhamadoul Habib mooy euh, moo tere jataay boobu xam naa xew-xewi jamono jeeg tawat ji moo tax waaye am na nuñ ko daa doxalee noo xam ne bis bu set Mm-hmm. ak ñi ñu ko daa jagleel bis bu set ak nañ ko daa jagleel mm-hmm. nga xam ne semaine bu Laylatul Qadr da ngay yëg ci Touba ne am na lu fi xew mm-hmm. penc meeg li wër Touba ak la fa euh, yooyu daal di yëg ne fii am na lu fi xew euh, xewu diine xewu xam-xam bu bu mag am na fi euh, xañ na tawat jee tax ak ak xew-xewi jamono moo tax ñu xaw a woyefal ndaje yeeg jotaay yi ñu yemale ko ci télé yi waaye dimanche bi wax dëgg yàlla yaatu na yaatu goo xam ne lépp rek lay dellu ci sellug yéene soxna kon daal ku màggal laylatul xadar la ñu waxoon rek ku def lu ku xotti yoon bu baax képp ku jëf-jëf ji da nga ci am tiyaaba kon soxna si yaakaar naa yëngu yi ñuy def ci yoonu murit ci laylatul qadar yëpp barke bi ak tiyaaba ji dana delluwaat ci jëmmam ju tedd ja dëgg la euh, ñu ngi ñaan it euh, li ci wadd ci tiyaaba ak barke gi yëpp euh, yàlla yàlla xaj tey ju tedd yàlla na ko fa fekk fekk fa soxna baaleeg sëñ seexu naa ñi nga xam ne ñoom it taxaw nañ ci ay taxawaay yu rafet mm-hmm. ba tey yàlla def ñu wuy ji seen borom Mm-hmm. waaye yàggal fi Serigne Mouhamadul Mahfous mi nga xam ne moo ci bokk njaboot gi mm-hmm. ak Serigne Cheikh Abdoulahan Mbacke Gaynde Fan mi nga xam ne moom it mi ngi ciy def liggéey bu am solo taarkal mm-hmm. jërëjëf Cheikh Mouhamadul Mourtada xam naa ne ñoom duñu leen mën a kii sax ndax euh, Touba la ñu gonte léegi ni ñëw euh, Serigne baa ngi may wax léegi xam naa ne sëñ Jibril moom day ndogu door a ñëw moo tax jataay bi du yàgg ci moom euh, incha allah alxamis la war a doon Euh, alxamis bii la war a. am naa la benn sax sëñ Aliou sonn maam Karim sëñ Chouaïbou. waaw <laughs> nee na mi ngi bi ñu tàmbali ba léegi. ndeysaan bàjjen naa ko waaw ah, nee na mi ngi bàjjen daa am nag doom joo xam ne dañu ko tuddee Soxna May Muna. ndeysaan ñu naan ko Soxna May Mbàkke. Soxna May moom sëñ Maam Mor sëñ Fall. moom sëñ Maam Mor waaw. bii fi tàmbali ba léegi daal daa mel ni ku ànd ak àll rek lu ne mi ngi koy def rek. Mm. <laughs> ah soxna maam Karim sama sama sama sëriñ la. ak Soxna May Muna eh, sama sëriñ la. Eh, ndax mook sama sëriñ soxna maam ami Mm-hmm. noo bokk ñaari waajur mm-hmm. ku bëgg lu baax télévision bi mm-hmm. waxuma sax plateau bi waaye saa su nekk euh, heure bu ma heure bu ñu gisantee naa ma dara du ma ci rëcc yàggal te maa ko jox sa numéro waaw wallaay yàlla <laughs> yàggal te wéral ko lool ak euh, soxna may moom it ñu ngi ko ci ziyaare ak sëñ sëñ sëñ sëñ euh, sëñ Cheikh Basirou Mbacke Euh, moom sëñ Saliou Mbacke ambassadeur moom ñu ngi koy ziare baax a baax euh, sëñ bi damay ñëwaat ak yow rek su ko defee ñu ñëwal ñu ci dëgg dëgg dëgg li nga xam ne mooy soññee bi ci bis bi xam nga euh, tey sëñ bi dam na ñoo xam ne ñu ngi dem ci ay cérémonie wala ñu dem ci ci ab bis bu mag dañ faa dem ngir président dana fa yable délégation bu am solo su ma fa dajeeg ñoom dinaa dajeeg ministre sàngam mbaa ministre sàngam su ko defee sama projet man a sotti yàlla nag ne guddi gii moom tanazzalu malaikatu wa ruuxu fiiha fiiha bi idni rabbihim min kulli amrin yow lu yaakaar naa ni eh, buñ la ne woon tey malaaka yi dañuy wàcc tey eh, ngaay lañ war a wàcc ñoom ñëpp danañ ñëw ak ki leen jiite ci mhm. turu yàlla suñu borom te danañ yiw wu fu waay def danañ ko yóbbu ba fajar gi yaakaar naa ñëpp ay jëkkantoo kenn ku nekk di fa dem kon guddi la goo xam tey guddi gu ñuy dàq la li tax ñuy ak mooy aw yiw su ko sun borom ñi ko sëñ Murtala waxee ak sëñ Jibli sëñ Tuubaa dafa bàyyiwul dara dara dara lu ñuy wute yàlla ak lu baax mhm. lu mu ci doon de xeebu ko soobu na ci ba jot ci loola door a jàll te ku ne xam ne ni euh, suñ borom fay na ko waaye musta xeeb lenn ba tax na gis nga weer yëpp weer yu baax yëpp lu ci nekk fexe na ba jëf ca dara moomale ko kenn ci ak njabootam xam ne loola day sax dàkk nga xam ne njaboot googu seen fi nii soxna Astou Mbacké mi fi nekk tey di soxna Astou Bali ak sëñ Cheikh Abdou lu ñu mën a am dundal layatul xadar moo moo leen ko gënal mhm. ak sëñ Modou Mahfouz xam nga lu waral loolu ndax seen waajur wa yool bi ci daan am ni mu ko taxawaloon seen Tuubaa tey jii euh, Serigne Bassirou Anta Niang mi nga xam ne tey moom moo fi nekkal borom Darou Mouhty lu mën a am bu bu bu bu sans baan xasee rek bisub borom moo Mouhty dañ ci taxaw ngir taxaw boobu ngir fàttaliku ko ak yiw yee cay am tey moom Cheikh Mamadou Mountakha bu màggal Touba jege see lépp lu am da koy daal tënk tënk ci taal yooyu sëñ bi dafa fexe ba weer yooyu ak yi ñuy dàkkee yu baax mu fexe ba wutal ci sàkku ko jox ko njabootam nga xam ne saa su egsee rek dañ ciy wut tuyaab da ci wut aw mu nekk loo xam ne lu am solo loolu nag day day wane ni jéego yi nga xam ne sëriñ bi dox na ko ci wàllu googu kon dama lay bàyyi bi nga ñëwaatal ñu itam ci yi ñu mën a fàttali ko ci soxna ci bis ci ci ci bis bi ak it ni nga xam ne lañ koy waajale la tànk sëriñ bi di dugg ci euh, plateau bi muy sëriñ Cheikh Abdou Lahad Mbacké ndax bis la boo xam wax nañ ko ren moom euh, baarakallah ku ñëw rek njaboot gi noppi nañ ngir ngir ngir ngir teral benn waaye ànd ak itam tuyaabay euh, bis boobu nga xam ne ni mooy euh, guddig laytul xadar sa Cheikh Sidi Moxtar ah jërëjëf sëñ Xamidou mm-hmm. euh, kàddu gi am na solo lool soxna si mm-hmm. taxawaay yu ram yi nga xamee ne taxaw na ko ci laytul xadar mm-hmm. bala ñu ci ñëw dañuy dellusiwaat ci wàccaay yi nga xamee ne moo tax mu man loolu Euh, rawatina ci. digganteem ak Cheikh Mouhamadul Moustapha. ak digganteem ak Cheikh Mouhamadul Fadal. Euh, ni ma la ko waxee woon bin ko waajalee ci xam-xam ba pare. Euh, ba mu wattu alquran. li mu war a xam ci wàllu diineem lépp mu xam ko. dañ ko waajal ci pas-pas. ci pas-pas ci sidqul iraada ndax. Euh, ku ne xam na ne xam-xam mooy jiit mhm. yaa yoxe subbaanu in xiftum xajal ak mu faxal lu mën ala allah mhm. seen ngeen euh, ragale gàtt mhm. da ngeen xam-xam mooy imam jaamu yàlla moo tax suñ borom laata muy euh, santaane jaamu yàlla xam-xam la jëkk santaane faalam annahu laa ilaha illa hu wastaxfir li dambi nee na na nga soxna euh, sëñ bi dafa dugg si euh, salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam salaamaaleykum wa rahmatullah yaa du xoolal retour bi wax euh, salaamaaleykum dafa li sëñ daam waaleykum salaam seegul bu fekkee ne yegsi na rek sëriñ Cheikh Abdoul Ahad euh, Mbacké euh, sëriñ bi salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ bi noo ngi lay ziare bu baax a baax euh, Mbacké di la ndokkeel ci weer wi ak bis bi. waaw jërëjëf dañuy am ñi tam ñu leen nuyu bu baax. jërëjëf Mbacké jërëjëf. di rafet bu baax baax jotaay bi. Mm-hmm. ñun wala mbokk yi ñu taw solo loolu ñëpp kontaan nañu. bismillah dafa mel yaa ngi doon topp li nga xam ne ni mooy waxtaan wi sëriñ bi ginnaaw bu ñu amee ci mbégte nag ci sa bi di la di la félicité ni ko gaa ji waxee di la jëfal ci liggéey bu am solo bi ak coordination bi ak taxawaay bi nga xam ne ni yaa ngi ko taxaw ci yoonu murit rawatina ci dëkk bu sell boobu ñu Tuubaa ñu xam ci lu wér rawatina bis bii di laytul xadar taxawaay bi nga xam ne ne am nga ko ci nga jaxasoo woon ak soxna si lool waaye jaxasoo itam njabootam rawatina euh, sa sa kilifa gii fi nekk di sëriñ Modou Mahfouz Mbacké di ko ñaanal euh, waaye sa waajur woo soxna Bali tey gis nga jataay bi ni mu ni mu tëddee sëriñ Mbaye Guèye si ñëw na ci diggante Daarul Mooti ak euh, sëriñ bi rawatina ak njabootam ak sëriñ Murtada si ak sëriñ Sidi Mbacké ak ki nga xam ne mooy sëriñ Cheikh Guèye Téere lan nga ñu indil nag tey ci yokkute ci bis bi ak ni koy waajale ak euh, ak ak ak doxalin yi euh, bu ca bis ba incha allah. waaw ah, jërëjëf xam nga bis ko. dafa mel ni sëñ bi dafa jege tele waaw waaw. Mm-hmm. bisimilah. Mm-hmm. waaw foog naa baax na léegi. Mm-hmm. waaw. waaw euh, jërëjëf. ñuy jiital mooy di sant bu baax baax ci waxtaan wi. jërëjëf. Euh, am na solo lool. jërëjëf Mbacke ñu ngi koy euh, ñu ngi koy topp. jëf Mbacke. bu dee li nga xam ne ma gis nag. soxna si da ko fonkoon fonk xam ne sax man daan dafa jéggi dayoo. foog naa dikk ngeen ci yitte ji la ci defoon. ak ak. bi mu ci amoon mhm. ba demoon ci sëñ Fallilou ba mu wax ko ba mu wax na ko ci waxoon te jëpp ginnaaw ñu teg seen bët mhm. bis bi lu mu sa def moom moo ko bay ci toolu boppam te mbay moomu da daan xëy di dem ca tool ya di ànd ak taalibe bu ñuy bay la daan mhm. yenn bu ñu bayee ba jaay gerte gi da koy denc bu ko dencee ba weeru koor teru mu génn ko def ko ci enveloppe su gën a ko daal di xel. Mhm. bi ñu fi jógee ñu ngi woon ci lu mat douze mille kaamil lañ ko daan wàcc. Mhm. daaw foog naa la ñu wàcce ba nag dix-sept mille trois cent. fukki junni ak mhm. euh, ba ca suba sa. dangay ngay dégg mu tàmbalee waajaat déwén. Mhm. lu am lépp jafe. Mhm. suñu borom itam nag defoon barkeel waxe sëriñ Fallu ji ak la ko ci dogaloon. Mhm. ba moom danaa toog ba caa sax muy tiit naan day yàlla bëri si ñu damaa nar a fay fii. bu xewee li bari ndeysaan loolu daan wax. ànd na ko itam nag ak mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gépp. ndax noonu ko Serigne Fallou joxoon ndigal noonu la ko si ndax joxoon ndigal mu doxal ko indi ko Touba gi gis nga léegi nag yéen a ngi teg bi nga xam ne Serigne Saliou ñëwoon na seet si ko mot laa naka noonu sëñ bi xaajal naka noonu mboole njabootu Serigne Touba gépp la ko daa la ko daa àndal bu dee sedd Serigne Touba yi ñoom ñëpp dañ daan doge ci moom kenn daw des mu di leen bernel di leen bernel di leen bernel taxawaay boobee nag li nga xamee ne jóge na fi itam soxna ak suñu maxuus taxawaay rek moom la ñu hmm. wéyal jiital ca la nga xam ne mooy lëmba góor muy kaamil yi hmm. looloo sabab mu jógee douze mille ba dem dix-sept mille hmm. loolu rek foog naa ne firnde la ci li nga xam ne mooy daara kaamil ñu ko ak fanweer ak lu topp kon Euh, li mu laaj la wax léegi dafa àgg ci beneen dimension. Mm-hmm. loolu nag li nga xam ne moom moo ci feeñaan nag mooy wàllu xam-xam yi nga xam ne yokku nañ ko ci. Mm-hmm. te ñoom ñoo ñuy yore comité scientifique bi di ci liggéey liggéey bu am solo. Mm-hmm. xanaa sax ñaari at yi la rek waaye lu ko jiitu foog naa waxtaan yi nga xam ne nañ ko am fii ci biir dëkk bi. gëw ma ne bari na jotaay xam-xam yoo xam ne waxtaan yu xóote noonu dana am. ci mboole fi yëpp nag. waxtaan nañ ci waxtaan nañ ci wàllu laïcité waxtaan nañ ci wàllu code de la famille sujet boo ko gis rek waxtaan nañ ko te borom xam-xam yi nga xam ne ñoo gën a kawe ci réew mi ñoom lañu indi ñu jàkkaarloo ak ñi nga xamante ne bi ñooy borom xam-xam yi dëkk Touba ñu discuter ci buñ nappee loolu lépp dañ koy tënkaat di ko def ay téere téere boobu ñu leen wan ci la ci la bokk kon loolu dafa nekk loo xamante ne bi foog naa ne e, luñ ci yokk la te mu nekk loo xam ne lu am am am am solo la ndax ñaan dañaa waxtaan rek bu ñu noppee dem mais léegi nañ di ko jëm a tënk bàyyi ko fi ngir ñi nga xam ne ñooy ñëw ëllëg xam ne kër lii fii lañu fi jàll te euh, li mu waxat rek léegi itam ñi ngi am nañ projet créé benn chaîne YouTube nga xam ne mboolem conférence bi a def ñu si yàlla dañ ko ci dugal ndax yëpp am nañ ko ci ay disques noonu aussi lañ ko bëgg archivé ba nga xamante ne bii maam dara dara dara du ci euh, du ci réer mm-hmm. euh, li nga xam ne nag mooy màggalu ren bi daaw moom defuñu dara ndax daaw boobu mbat ni ñu ngi soo ko tàmbali mhm. kenn mënu ko woon kenn xamu ko woon ñun ñëpp ñu tiit ak itam réew mi loolu laajoon waaye ren ji nag day beneen contexte boo xam ne dafa soppeeku nag ndax bu dee la ci wàll réew mi moom ci nañu réew mi ñëpp nga daje loolu moo ci jiitu beneen itam mbas mi miin nañ ko léegi xam nañ ne masque yi masque yaat na biir réew mi euh, ñàkk yi am na nit ñi xam nañ dañuy moytoo ñu bëri aussi hybride nit ñi moo nag bi nga xam ne aussi sëriñ bi li mu lu leer la moo di yokk leen mbooleem berne yi yokk leen mbooleem euh, jàng xasida yi jàng jàngu alxuraan bi yi nag ni ngeen ko yaraaxal yaraaxal nag loolu mooy foog naa bu ko doon tekki mooy ni respecté distanciation physique bi nga xamante ne bii moom la docteur yi di faral di wax kon noonu lañ fas yéenee def. Mhm. Euh, na nga xam ne moom lañ ci wàññi daal moo di bâche yi ñu daan def mbedd bi duñ ko def mbedd bi kenn dafa bâche benn bâche. Mhm. li nga xam ne mooy cérémonie bi itam boo xamante ne bii gan ñi dikk nañu ci saal bi la ñuy toog. Mhm. yàlla dogal na saal bu yaatu yaatu am na. fa la ñuy toog defee fa waxtaan wi jox ko defal donc ay kàddu sant waaye daayira yi ñoom commencé nañu dikk ñu ngi ñëw fii kër gi ña nga dem fee kër euh, Cheikh Mahfouz. moom mi moo dem daayira yi xadar yëpp. Mm-hmm. ndax ñoom itam dañoo namoon bis bi euh, yàkkamti woon a ñëwaat ci biir kër kër soxna si wala jëm fee ci kër sëriñ ba mm-hmm. ndax daaw daanaka far ñaar ñett dañ ñoo dikk mm-hmm. ren bu ñu dikk ñoom ñëpp ñooy marché euh, dikkaloo mën nañu wax léegi nag la nga xam nag mooy la sëriñ bi xaaj daal nett bi li Seex Musaa moo lu baax baax ne fu ne waaye sakk na ne Tuubaa nag loolu moo tax ñuy fas yéene toog te di woo mboolem mbokk taalibe yëpp nag ñoom ñëpp nañu dikk te buñ dikkee ñu def li nga xam ne mooy ndigali sëriñ bi joxe hmm. mooy jàng alxuraan jàng xatida yokk ñu ñun daal ñu ngi wàcc fii ci biir kër incha allah hmm. ngir parce que yéene màggal li nga xam xamante ni bii noonu la ko soxna si daan euh, daan def hmm. jërëjëf Mbacke euh, kon ñu ngi lay gërëm bu baax a baax euh, sëriñ bi di jégalu ci waxtu wi ndax mënutoon na ñàkk sëñ di mu dugg leeral lu jëm ci liggéey bi ndax euh, bi ñu koy wax sànq sax ñuy waxtaan ci euh, waxtaan wi dafa wax ne ñoo ñu fa ñëw rek mate nañ ko sëkk waaw wax dëgg yàlla ni ko sëñ Mourtala waxee léegi mu ubbi ko wax dëgg yàlla yóbbu ko itam ci niveau bu kawe euh, ci yaatal ko ak communiqué bi ni mu ko waxee rek kon noonu lañ koy dundee ca bis ba incha allah mu war a nekk alxamis foofee ca Touba incha allah di ci fàttaliku di ci dabu bëggug soxna may ci bis bi waa di ci fàttaliku waale itam soxna may mënut Mbàkke bintu Xaadim Rasul kon sëriñ bi ma bàyyi la nga yeggale eh, fi ngay fi ngay fi nga tolloon ñu ngi gërëm ak baax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mm-hmm. ndax ni ngeen ko xam ne rek liggéey bi yëpp ci loxoom la ko sëñ bi teg te mu matale ko sëkk nag ndax eh, jataayu xam-xam yëpp ci xalaat bu rafet lañ koy defe kon ñu ngi koy sant bu baax di ñaan suñu borom dëgëral ko eh, xam naa damay gaawantu rek ndax waxtu yi gàtt na Euh, li ma doon wax rek ma àggale ko muy euh, formation boo xamee ne Cheikh Mouhamadul Moustapha defoon na ko ci soxna Maymunatu Mbàkke euh, biñ ko yare ci xam-xam jàngal ko yar ko ci pas-pas Cheikh Mouhamadul Moustapha daf ko yar ci jaamu yàlla ndax ku ne xam na ne yàlla ñi mu li mu yónni ci ci yont ak li wàcc ci ay téere lépp la ko tax a jóg mooy pour ñu jaamu ko mooy li nga xamee ne moo fi indi nit ñi moo leen fi bàyyi wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun euh, bokk na ci dénkaane yi nga xamee ne Cheikh Mouhamadul Moustapha daf koo dénkoon te soxna si ci ci jëmmam bindal ko boppam euh, doon na wax ne Cheikh Moustapha noon na ma jaamu yàlla booleeg liggéey mooy tax a gis buur yàlla amal ngorog jom fonk jaamu yàlla seexlul bu daay roy sunna mooy la yàlla ah, loolu moo taxoon ah, soxna si ah, kër gu mas a am rek tabax na fa jàkk kër gu mas a am tabax tabax na fa jàkk nekkoon ku taquk alxuraan saa boo ko gisee mu ngi yore kaamilu alquran euh, bis bi mu taxawal euh, jaamu yàlla moo tax mu taxawal ko ndax euh, dafa doon dakk bëggug cheikhul xadim ndax ku ne xam na ne sëriñ Touba alxuraan rek la bëggoon nee na lim am lépp maqaama mu maqaam mi nga xam ne mooy as-siddiqiya te ginnaaw maqam maqam nubuwa moo ci topp Sëriñ Tuubaa nee na ci alxuraan la ko amee qiraatuha kanzi wa jaahi wa izzati nultu biha kawni ladallaahi daa sidqi nee na jàng alxuraan mooy sama alal mooy sama trésor nee na mooy sama daraja mooy sama tedd nee na maqaama mi ma am ci suñ borom ci barkeb alquran laa ko amee dellu wax ne kanzil kitaabul xadis wal adab laa jamoo fiddatin wala jamoo zahab nee na sama alal li may denc muy muy alal mooy alquran ak sunna ak euh, xam-xam nee du dajale alal du dajale wurus kon loolu moo tax bi ko soxna si bëggee liggéeyal daf ko liggéeyal ci alquran ndax weeru koor euh, mooy weeru alquran chahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayyinaatin minal hudaa wal furqaan euh, weeru koor màgg na lool waaye bokk na ca li tax mu gën a màgg wàcc gi suñ boroom wàcc alquran Euh, Sëriñ Tuuba euh, dafa wax ne weeru koor li mu doon sàkku ci suñ boroom ci weer ko la ko joxe samadu qad awsalta lii fii ramadan marumtu minka qablahu bi fayadaan radata lii fihi alladi ahbabta li wajalibal ada dababta nee na yow mi nga xamee ne yaay samat samat mooy mooy Euh, ki nga xamee ne soxla yëpp moom lañ koy jooy ndax mooy boroom lépp mu yàlla ne ne li ma li ma li ma sàkku li ma doon sàkku ci yow ci weeru koor nga ma ko joxe te lépp lu ma bëggoon ñoddeel nga ma ko ci dara ji weeru koor waaye lépp lu ma ragaloon soreel nga ma ko ci biir weeru koor wérdul maaxuus ci weeru koor la ko ko eh, suñu borom joxe te sëñ Murtala si la dikk na ci mooy wérdi wi nga xamee ne eh, barkeb di ko jiitu yëpp def ko ëmb ndax eh, sëriñ Touba def leen liggéey ñoom ñoom kilifa yi fi jiitu woon mooy Cheikh Abdul Qadir Jilani Euh, Cheikh Ahmad Chazali ak Cheikh Ahmad Tidiane def leen liggéeyal ba làq seen ngërëm moo tax euh, barke ba nekkoon ca seen wér euh, suñ borom daf ko boole def ko ci wérdul maxuus weeru koor nekk am wàccuwaay wu mag ci lislaam ndax jaamu yàlla bu ci waay def rek suñ borom daf koy ful bokk na ci euh, particularité weer ko mooy jaamu yàlla gi nga xamee ne suñ borom daf ko askanele boppam ndax jaamu yàlla yépp moo leen santaane waaye dafa tànn weeru koor ne koor maay borom asawmu lii waana ajzi bihi nee na koor maay borom maa koy fayal sama bopp ndax bokk na ci ngëneelu suñ borom boo jëfee lu baax bu lay fay daf la koy fulal ba mat fukk ful googu nag mën naa àgg ba ba euh, junni ni mu koy defe ci joxe masalu ladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi kamasali xabatin ambatat sabaa sanabila fii kulli sumbulatin mi'atu xabba wallaahi yudaif liman yashaa wallaahu waasiun alim nee na boo joxe sa alal ci ngir jëmmi suñ borom suñ borom daf la koy fulal juróom-ñaari junni juróom-ñaari junni waaye fula googu mën naa bañ a àgg naa bari lool ba kenn du na muy toll ni mu koy defe ci weeru koor ndax nee na maa koy fayal sama bopp yàlla nag buy fay ndax ku nekk boo joxe kem na nga tabee ngay joxe yàlla uh, ak tabam yëbut fenn kon tiyaaba ji nekk ci weeru koor amut ci uh, uh, yeneen jamono yi suñ borom def ko tànn ci jamono yi def ko mu gën ci jamono yëpp moo tax ba soxna may na may liggéeyal Cheikhul Khadim dafa tànn weer wi nga xamee ne moo gënal ci weer yi waaye tànn li ko gënal ci àdduna te mooy alquran waaye tànn guddi gi nga xamee ne eh, moo gën ci guddi yi tey eh, tolloog eh, junni junni guddi muy laylatul qadr mu mu ci liggéeyal cheikhul xadim ngay fi ngay fi ngay bàyyee Euh, waxtaan saa su dem cëslaay cëslaay li mooy euh, lii kat lii leen ci royee parce que fii lañ ko jëlee euh, loolu dafa nekk lu am solo ci ci waxtaan mooy heure booy takk rek mu am contexte loo xam ne nii ay référence ay base muy teg mm. te yaakaar naa ne du génn li muy wax te lépp du génne lislaam sëñ daam ak ñuy wax ne waxtu wi cate na lool bëgg na sax wax Modou Mahfous Sylla mm. bu ñuy tëj mu yëkkati ay ay ay kàddu ak sëñ naa mu tëjal ko jotaay waaye Baye mbay bala ñoo ñëw ci euh, sama Mahfouz mu yëkkati kàddu yooyu am na loo xam da nga ko junjoon rek loolu ñu ci mën a tënkal ndax euh, li doon na la émission spéciale boo xam ne daañu la laaj Gabon ak Serigne Touba. loolu moom war nañ ko def plateau du doon sox yoonu géej gi mais weeru koor ak Gabon ak Serigne Touba ku ne xam na ne nekk fa ci te wóoroo rek dafa metti rawatina nga nekk fa nag ay ay koori koori koor fekk la fa te benn fekku la ci. nga am liberté ci sa bopp goo xam ne nga mën a doxe nga bën bëggee jaamu su borom tey lan nga nu ci mën a indi rek ci loo xam ne ni ci tënk ndax yaa ngi wax léegi ne tubaab yi waxoon ne ni du fi amee kii ne dina fi amee léegi kii waxoon lam waxoon ak kii li mu tey contexte bi toll yaakaar naa ne weer dina wax jëm waxtu bi maa ko gën a yàqamti ndax ci dama bëgg gàllankoor ba bu may dugg tubaab ñu naan euh, salaatu xari mi ne naw te loolu fasuma ko yéene Eh, ñu dellu di ziare mm, Serigne Abdoul Ahad dégg nañ kàddoo bi waaye sëñ bi ci biir kàddoo bi dégg naa ci dix sept mille trois cent kaamil fukki junni ak juróom-ñaar ak ñetti téeméeri kaamil jàng nañ ko daaw sëñ bi loolu waxuma la Sénégal waaye àddina sépp loolu mën na koo aar kon ñu koy ziare bu baax a baax sànq bi may lim njabootu borom Daaru Muxti yi tuddee soxna May Serigne Mahamadan Koso moom itam tudde woon soxna si am soxna may mag la woon ndax 1951 la feeñoon bi mu feeñee mu tudde ko ci déwén soxna si tàmbali euh, laylatul xadar ji euh, sëñ am li nga wax da da lool maanaam euh, bëgg-bëggub nasaraan bi ak bëgg-bëggub sëriñ Touba saa fu ñu dajee rek li sëriñ bi bëgg mooy am ndax li sëñ Euh, Mourtada waxoon léegi saxaaba yi nga xamante ni jéey sun nañu woon ñett téeméeri fukk ak ñett daje woon ak junni su fekkoon te ni keroog Badar fukki fan juróom-ñaar ci koor waa Màkka yi bob nañu ñi àndoon ak sallallahu alayhi wa sallam kon la fa yem euh, nasaraan bi itam la mu bëggoon li ma la wax ci diggante ñaari gouverneur yi nga xamante ni seen xëy ak seen ngont mooy taal bi sëñ bi taal bu mu fi tàkkee ñu amoon ay jëwriñ am ñu takkaloon ay ndombay tànk fii ci senegal ndax tubaab yi jëf yu ñaaw yi ñu doon jëf di dagg bopp li ñuy base les bases ci tubaab dañu am ñu leen ko doon defar amul benn tubaab bu weex bu ma wala bu xonq bu ma sa jël paaka ñëw dagg bopp jëri jor ndee la kànnaar fala dagg boppam mbokk ma euh, góor yàlla bu mag bale Mohamed Lamine Dramé euh, le roi du Firdou Euh, euh, moo dagg boppam góor yàlla bi ñu doon wax Samba jaadana nga xamante ni moo jox sëriñ xaalima jaxate kala wirdu tijaan ci moom la ko jële ay tukkale dagg boppam ñooñu ñëpp nasaraan bi bi ñu ñëwee not ñu dañ leen a joxoon ay pouvoir takkale ndombay tànk ñuy jàppale nasaraan bi sëriñ bii nag ndax am ñaari bay di sëñ Moussa Ka wax yoo xamante ni moo tënk diggante sëriñ bi ak nasaraan bi bala may egg ci Gabon ji moom loolu xam naa ni palaato spécial lay doon. Ndake may ak Jibril man ak yow dong lay doon Jibril sax du ci bokk ñu waxtaani Serigne tubaa ak Gabon ak weeru koor. ñetti ah, baax na ñett yi la yoo xam ne nii parce que sept ans Mbay muy sept sept. ëpp na euh, sept ans sëñ Touba. Mhm. kere bi mu tàggoog borom Daaru Muxti mhm. fukki fan juróom-ñett ci weeru safar mhm. Euh, di woon le 10 août 1895. Mhm. bu ci bëree ci weeri xabar yi la. ak keroog bi muy wàcc juróom-benni fan ci Chaabaan. 1902. Mhm. Mhm. sëñ bi def na juróom-ñaari at ak juróomi weer ak fukki fan ak juróom-ñett. yoo xam ne yëpp ay koor lay lay àndal. tukki bi laa wax rek maanaam euh, diirub tukki bi rek keroog bi mu fi bi mu tàggoo ak fi mu wàccaate ci waaxum Ndakaaru bi. juróom-ñaari at la. ak juróomi weer ak fukki fan ak juróom-ñett. may wax ni. nasaraan bi euh, la mu bëggoon amu ko ndax dafa am ñaari béy di sëñ Moussa Ka wax mbirum Serigne Touba boo demee ci kàgguy nasaraan maanaam archive yi tubaab yi ni ñu ragale woon Serigne Touba kenn mënula ko wax tubaab yi tubaab yi ni ñu ragale woon Serigne mhm. kenn mënu ko wax mhm. te amoon na fi ay résistants ay jàmbaar yoo xamante ni dañ doon xeex ngir sax taxaw yoroon ay ngànnaay di faatal tubaab yi tubaab yi di leen faatal mhm. mais li ñu ragal sëñ Touba ragale wuñ ko noonu te sëñ Touba moom inni ujaahidu bil hulumi wa bidqa sëriñ bi kurusam la yoroon akub téeréem ak xalimam am gobar musu koo yor musu waaye ni ko tubaab yi ragale woon loolu sëñ Moussa Ka da ko wax li doxoon digganteem nag tubaab yi itam sëñ Moussa Ka dafa wax seytaane dem ruuxale koog nasaraan yi ni leen jihaad lay fexe fi Euh, guverneur boobu ma doon wax muy euh, clement Thomas bi sëñ bi sañcee Touba ba ca déwén si 1889 la ko Sadi Carnot mi doonoon président France en 1887 fal bi mu ñëwee fekk fi ay kalaame lii daal mooy mën a am taalum sëñ bi danga koy fay mbaa taal bi nga fi bëgg a taal noteel gi du fi amee ndax murid yi ñu ngi fàq di fekki sëriñ bi di jël seen alal di ko jox sëñ bi sëñ laaju leen ko nun ñu di leen laaj impôt mënuñu koo fay kalaame kalaame kalaame ba tax le gouverneur jënd ay téere dem fekk sëriñ bi ca sañ ñam bi en 1889 ñëw jox ko téere arab yi ni ko nag dama bëgg mbooloo mi nga dàq leen tasaare leen yeewi leen kenn ku nekk dem ci sa këri bopp sëriñ bi gàntal mu daal di joxe diggal les chefs de canton ak les chef de province di leen fu fi mu nekk gëndu xataan leen dóor leen dàq leen ñu gën moom la sëñ Moussa Ka di wax naan ca euh, ca at lañ génnee cheikh ya Touba. di ay jëll ya di ay tool ya taalum sëriñ bi daal di fay fa Tuuba ak Mbàkke ci tey ko wuteeg boobu la ko dale ci gouverneur boobu te li ci gën a kiimaane mooy tey dafay xajul waaye kon dinaa la wax gouverneur bu fa mu mujj moom euh, euh, Clément moomu ba ci nga xamante ni keroog bi sëñ bi ñibb see Touba te foofa it bëgg-bëggu sëñ bi ak bëgg-bëggu tubaab bi ndax boo demee ci këyitu tubaab bi seen wax yépp mooy sëriñ bi bu fi jógee njaareem lañ koy denc bi mu sañcee kër gu mag gi njaareem en 1913 ndax 12 la fa ñëw 13 la ko sañ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo fa njëkk a feeñ tévigné moo fa nekkoon def ko ni léegi tabax fi ndax booba kër ay néegi ñaxa fa nekk ay tapaati sax mu ko dama bëgg nga def fi tabax boo xam ne ciment lay doon boo xamante ni dana jëmmal ni yow njaareem ngay sax doo fi jóg Cheikh Moustapha tubaab bi woolu nañ ko mu ñëw ñu ni ko sëñ bi bu fi jógee fii lañ koy denc ba mu ñëwee sëriñ bi di ko lu ñu wax mu ni ko dañ ñoom day bu boobaa fii la sëriñ bi ni ko déet bu boobaa Tuubaa la kon bëgg-bëggub tubaab yi ak bëgg bëggu sëriñ bi ba ñu dajee foofu gis nga sëriñ bi bi mu bi mu bi mu tànnee dëkkaale ak boromam Cheikh Moustapha jóge ñaxit bi mu jullee timis ba pare ànd ak sëñ Balla Coro ba ñu demee ci euh, euh, l'administrateur de de Diourbel wax ko ko mu ànd ak ñoom ba ñëw ba ci néeg bi ba gis ni sëriñ bi sunu borom jëfandikoo na la ko soob ci moom xam nga nañ yóbbu sëriñ bi Touba ci làmmiñu ko mu njëkk a génn enseignant xam nga sëñ bi moom ah <laughs> maanaam tubaab yi ñoom fu ñu bind foo dem ñu ngi bind ni sëñ bi bu fi jógee fii la ñu def sëñ bi di Cheikh Moustapha su boobaa Touba la bi nga xamante ni bii l'administrateur de Diourbel Pall Cheikh Moustapha ñëw na xamal ko ni ko sëñ bi de sunu borom jëfandikoo na lu ko soob ci moom am na ñuy wax naan tubaab bi sëñ bi sëñ Moustapha sëñ bi da ko noon yóbbu ma tubaab bu ma tubaab tiim tubaab bi tiim na sëriñ bi ñëw na ba fekk ko ci néeg bi moom moo bindal boppam ci rapport am ni sëriñ bi kenn xamul wan waxtu la ko def te loolu sëñ Moussa Ka bi muy martial sëriñ bi nee na demam nga ump na mbindeef te upp na bopp kuy mbindeef ku dul malaaka ya ko uuf ak yàlla ak ñamu ko wax xamoo kañ la ko def l'administrateur de Saint-Louis de de de Diourbel commandant de bi moom it doolee la bind dara sañ kenn xamul woon waxtu la ko def ñëw nañu fekk ko ci néegam bu mu tànnoon daan fay wéetal boromam dafa jam yàlla mu fekk nañu mu waajal boppam waaye moom ci boppam njool Aminata Lo Cheikh Moustapha yal nañu ko sunu borom feel taawub Serigne Touba ba nite gi nekkoon ci Cheikh Moustapha xam nga lu mu def ni ko alal jii nekk ci ndax moo ñoom ñoo bind wax di lañ fa fekk ci alal ci kër sëñ bi te amul sëñ Cheikh takk yom nee na kenn ku ci nekk la la ca saw fit mayoon ba nga koy def ci alal ji ndax kenn du duy déet kenn du la tere moom moo bind ni liñ fa gis ci xaalis ngeen xamul nu mu toll Cheikh Moustapha ni ko bëgg ngeen saytul ma xaalis bi xam nga nañ yóbbu sëñ bi Touba kan moo ko njëkk a wax comment na am njaareem moo ni bi ko Cheikh Moussa mu ni ko léegi sëñ bi dama bëgg nga jël ko yóbbu ko Touba provisoirement bu yuy jàllee bi muy bind kilifaam gouverneur def ko ni sëriñ bi dañ koy yóbbu Touba provisoirement bu yuy jàllee na avec l'accord de sëñ Modou Moustapha ñu delloo si ko Njaareem ndax bu ñu ko bàyyee Touba Touba day rey Njaareem commerce um Njaareem bi kon Touba lieu de pèlerinage lay doon kon dañ ko fa yóbbu bu yuy jàllee ñu delloo ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nee na bañ cay jéem a wax ba yëf yi jàlle sëñ moo tax bi mu li doon tere mu ni sama bakkan laa ci teg kere ba tubaab yi di jéem a junj njox bi ko sëriñ bi bu yi jàlle daf leen ni loolu moom sama bakkan laa teg kon foofu tubaab bi bëggoon na denc sëñ bi njaareem sëriñ bi bëggoon muy Touba la mu bëggoon sunu borom def waaye taalub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxawul islam gi mu bëggoon tubaab bi taxaw ni du fi amee su fekkoonte ni le tubaab bi bëggoon am na ko li ma waxoon kon tey yépp du fi am maanaam wala fi dañuy wax ni ku mbaanigu sag ndaw kàccu sag mag nun mënunoo fay Sëriñ Tuubaa yal na nu ko sunu borom fayal Sëriñ Tuubaa dafa kàccu ak dundam ngir nun nu mbaanigu ci Sëriñ Tuubaa dafa kàccu ak dundam fanweeri at ak juróom-ñett la am ak tubaab dañuy wax fanweeri at ak ñaar mais de 1895 bi mu fi jógee dem Gabon ba ni mu ñibbisee Touba 1927 loolu mooy fanweeri at yi ak ñaar mais sëriñ bi fanweeri at ak juróom ba mu sañcee Touba 88 89 la tubaab yi tàmbalee jóg moom la ko jiitu amuñu woon ci moom soxla kalaame yi jóg juróom-benni weer juróom-benni at ñu di ko waaj ci juróom-ñaareelu at lañ ko yóbbu Gabon. nga xam ni boo xoolee dunduk sëriñ Touba gi fanweeri at ak juróom-ñett. yoo xamante ni mi ngi ko ànd ak nasaraan bi mësu di fu ngeen ma jëmee mësu leen di kañ ngeen may delloo si dub àndandoo du dendandoo dub taalibe du doom du kenn Sëriñ Tuubaa rek ak nasaraan bi foofee ñu ko yóbboon tey ku ñu fa yóbbu ca maa yomba googu ngay wax waxuma la weeru koor man dem naa fa yor butéeli ndox yu sedd waaye boo deful ndànk danga nga fa wàcc ab liggéey ndax Sëriñ Tuubaa ba mu fa nekkee la fa nekkoon ci ay jiit ay jaan ay garab yoo xamante ni dëgg ya bu mook jaana yem man keroog bi fa njëkk dem bi may jub maayumba te fekk na réserver nañ ma foofu hôtel waaye lëndëm gi ak ni mu mel bu ma ko xalaatee ak bi ñu fa indi sëriñ bi ndax ba léegi boo fa demee nit ña nga fekk da ñi ay sauvage lañu ay xayawaan lañu lool ñu jël sëriñ Touba yóbbu ko foo xamante ni bii gisul kook danaan dama ni mu ni haa nga xamante ni ko koy toggal amutum néeg mbaar la yor dégg nga taw booba wax dafa naa ni waxoon naa ko fi pluviométrie bi nga xamante ni bii taw na ñetti junni millimètres yu topp ñetti at yam njëkk def quatre-vingt-quinze vingt seize ko ci kaw Serigne Touba dégg nga sëñ mu ni ci moom at la euh, euh, tawte Euh, ba ba ba euh, euh, maanaam ba ba yi diw ca daal ba lu dul kitaabulaahi fii quraan yi tooy na keroog ba yàqu ba mbay waane kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu la wowal ilaahi bi sakkatu moom la waxoon keroog ba muy fatamtu xëy bayit wi moo mag xasida jabartu kon noonu mënunoo fay sëriñ Tuuba dañuy ñaan suñu borom mu fenn ko ndax koo xamante ni boo ko peese woon du mat ñeent fukki kilo ak juróom tubaab yi jël ko nee na nattu nañ ko ay bàqara ñaar tamit nattu ak juróom ñetti fukki nattu ak juróom yoo xamante ni benn bu ci nekk yóbbu na bakkanum doomu aadama ñoom tubaab yi nee nañu foofu ca mayoom ba amoon na ay mbindeef yu fa nekkoon lool li leen wutale ak nit mooy seen amuñu tës tànk li seen loxo yi mel noonu la seen tànk yi mel ñu bàyyi sëriñ Tuubaa foofee du ko koy jox mu lu muy wax lu muy dund la ci sëñ Touba. Mm. Euh, lu muy dund la ci sëñ Touba. Euh, mm. ñu di ko ñaan baax nag. Mm. ndax yitte gi sëñ bay gi li ngay gi sëñ bay def ci archive bi yitte jooju la murid yëpp war a def yitte jooju. parce que sëñ sëñ Baye bu taarix yàggee rek histoire rek nit ñi rax ci te li sëñ Moustapha Sall di wax rek naan taarix bu dul dëgg day weddi bay dëgg. te moom dafa def yitte ci sëñ bi ndax amuñu lu gën a rëy loolu parce que tey loolu moom rek moo ko ñemewoon engagé. ba tey ñu am liberté boo taalee télévision Sénégal yi da ngay xam ne ay dëkk bi ay jullite fi nekk gis ñuy jàng alxuraan tey ji lañ doon def concours alxuraan ay gone yu ndaw ñu xamegul lu baax xàmmeeguñ àddina mokk rupp alxuraan ñu di leen teral loolu grâce à Cheikh Ahmadou Bamba tey ñu di leen valoriser tey ku nekk yaa ngi doon xëccoo dem seen petit gàlle mbaa seen petit mees mbaa leneen at ci ginnaaw daanañ dajale ay nit sa guddi di leen jàngal fecc di leen jàngal léegi gone yaa ngi concours man alxuraan ngir bëgg a dem bokk ci concours bi te lu nit ñi daan am fële di nga ko am fi loolu lépp Cheikh Amadou Bamba ko moo ko moo ko moo ko xeex ci dëkk bi kon yow moom dañ koy ñaanal ndax da ci yitte fexe ba loolu di empreinte am di markam markam mooy lan mooy gëstu ak sonn ci archive yi sëriñ bi fexe ba wan ne eh nun ci suñu bopp buñ caaxaane li nu am nan xam ne li tubaab bi da koo bind teg fi buñ ko seetaan xam nga sëñ bi ay bu nañ bàyyi géej géej nañ bàyyi waxtaan loolu sëñ bi sunu victoire la dañ ko di gës li ci am solo kay mooy fexe ba am principal dëgg dëgg la mhm. Mhm. waaye gis nga sëñ am li nga wax mhm. yoonu murid dañu war a jógaat ci biir taarixu sëriñ dëgg la gis sëriñ Touba dañoo mën a bind ci moom yu ànd ak firnde yooyu boo ko gisee li xam nga sëñ Touba amul morom dañ koy wax dañ koy wax mais dañ koo war a jëf wane ko sëriñ Touba man de duma ni du duma ni du doomu aadama waaye fi nga xamante bi jaareel na nañ ko fa ndax tey bu na nga di fekkoon duy siyaare barab ba ca Mayumba wala Libreville wala Lambaréné kon tubaab bi ñu ni la mu bëgg mais nit ki noo koy jëlee fanweeri at ak ñaar bis nga bëgg koo faat ci ngay xëy ci ngay got waaye fa mu tànnoon ni foofee fa lay tëddi ca bébam nga loole la ko sunu borom defal moo tax dafa jot. Euh, ñu bind mboorum sëriñ bi te kenn duñu ko bindal nag te tubaab yi ci seen bopp li nga xamante ni bind nañ ko te wérut weddi ko dafa yomb kon loolu maa ngi lu bokk yi ni seetaan waaye am na nu sas wu rëy rëy rëy ndax sëriñ mu Ka day wàcc na ndax fi may ta daaneele sama kàddu rek moom lu mu seede woon lu ne woy na ko ndax njàmbaaru Cheikh Moustapha El Karim bala koo xam da ngay dégg euh, l' administrateur de Diourbel le sëriñ bi fi ne woon su rafet si ki sëriñ Touba ndax ka ko fa jiitu woon doon Tévigné da daan bind ki sëñ bi lu dul noonu ba gouverneur William Ponty moo ni gouverneur u Sénégal kii bi bind ci Ahmadou Bamba nekkut bind comme lettre au mois d' août 1912 artu ko novembre mu bind ko lettre artu ko mu continuer mu jëlee ko fa yóbbu fa le selfie le selfie di def guddeeg bëccëg subaa ngoon di bëtt kër sëñ bi di yéeg tappaat yi mu nekk bu gise ko sëñ bi ba mu fa amee ñaari at ba dafa jógee mu def seede ci sëñ bi seereem sa fa mu juume rek mooy bu Cheikh Ahmadou Bamba jógee fi la yoonu murid di yem ndax kenn mënu koo wuut te boo demee ci marché bi ma daaneel sëñ Moussa ba muy wax ni ma ñëw fi jooyi jooyi wolof mbër ma defar réewi wolof ba koo fa seeru am yëf te wootewul fetulu sox kenn du ni saa maam ca xarab sëñ Tuubaa la moo nekk mbër yéen ñii di mbër moo nekk mbir yéen yii di mbër ku mel ni man moo lu ca war gumba gu ndaw gu mat la fer ndey jenni mes lu ngeen ca xam te amagul ku ko wommat te xamagul yoonu jubit te mun ta daw ba raw lori te xel ma daf nopp ya tëx xel may xalam di férféri rongoñ yu di carcari cër ya ca des di bërbëri di jéem a jëf te ruugalax saa bu xëyee dëgg mu di jooy mbaa mu ba yooyu soo ko gisee gët ya di xuuy kon Cheikh Moussa foo mu doon waxee boo ko xoolee jàppoon nañu ni liir boo xamante ni da ngaa judd gumba tëxlu sa waajuroo lay nàmpal ba ci ab liggéey doo dund waaye Cheikh Moussa Fall Karim moo taxaw dindi ngumba ga dindi duuga dindi feebar lépp mu def ko yoonu murid dem ba tey caatum sëriñ Touba waxuma la Serigne Touba waxuma ay càmmiñam waaye caatum Serigne Touba sos si loo xamante ni bii tey ku mu neex ak ku mu naqari ku ko reconnaître ak ku ko reconnaître fii ba Makka ba lislaam wàccoon alxuraan wàcc fa ni mu soxna si doon taxawa laylatul xadar te defu ko maa ngi lu bokk yépp nag bu baax ñaan yàlla mu yàgg fi lool mm-hmm. maa ngi gis YouTube bi sax ñu bari di ko ñaanal waaye na yokk mm-hmm. xam naa jot na sëkk nag moom sax mu taxawal benn commission scientifique boo xam ne nii da leen di dajale jiital leen di leen orienté ci loolu ñu di ci liggéey ndax lu ama am solo la ndax jamono mooy bëgg a ñëw boo xoolee télé yi jamono ji eh, wax ji bari na coow yi bari waaye sëñ bi moom preuve la àndal ndax moom lu ci nekk da koo bindal boppam li ci def tubaab bi te moom dafa def yitte ci loolu te dafa am ñoo xam ne li tubaab bi wax sax lañ gën a gëm kon nag lu am solo la war bàyyi xel eh, sëñ eh, Modou Mahfouz ma bàyyi la nga nga sànni ay kàddu rek ndax waxtu bi waaye yow. Euh, sunu xarit nga ndax euh, ku ne xam ne taxawaay bi nga am ci sëñ Jibril euh, ak liggéey bi te sëñ Baye Cheikh Sidi Muxtaar ak sëñ Mourtada ak Baye Mbaye ak sëñ Cheikh dañoo war a delluwaat léegi Touba incha allah moo tax waxtu bi mat na ba tegal sax waaye yow mënuñ la jox di la nuyu nag ci turu Soria gépp ak Touba TV di am mbégte bu baax a baax ci sa teewaay su ko defee sëñ Cheikhouna mën ñu koo tëjale ak ab yaat maa ngi nuyu baax Serigne laay mbay Peex Euh, géwélu xaaj ma mi ma yónnee message naan ma waxtaan wi neex na lool mhm. waaye su ma ko teeloon la yëg damay ñëwal sama bopp ndax dama bokk ci soxna may ñu ngi koy sant siyaara baax mook sañ Fallou Gala Silla mhm. euh, nekk fële ca Touba moom itam di sunu mag di sunu xarit nekk ca euh, télévision Lamp Fall TV ak Lamp Fall FM ñu di ko ziyaar baax baax di ko gërëm kon sëñ Modou Mahfous ma bàyyi la kàddu gi asalaamaaleykum wa rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun bismillaahi rahmaani rahiim innaa anzalnaahu fii laylatil qadr wa maa adraaka maa laylatul qadr laylatul qadr xayrun min alfi sahri tanazzalu malaa'ikatu wa ruuhu fiihaa bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya hattaa matla'il fajr ah sëñ bi ñu ngi ziar mbokki taalib yi ñu fi dajeel ci bis bi. di ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke ibnu sëriñ Basiiru ibnu xaadim rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu yàgg fi lool ci ànd ak wér di ñaanal sëriñ Basiiru moom borom daaru sëriñ Basiiru antaña mu yàgg fi lool xalifa borom daaru ñaanal sëriñ maam Cerno Birahim xalifa maam Cheikh Aw Cheikh Mbàkke mu yàgg fi lool ànd ak wér di ñaanal tamit suñu sang suñu sëriñ suñu wayjur sëriñ Mouhamadou Mahfouz Mbàkke ibnu Cheikh Aw Balla borom daaru ibnu soxna may mun a xaadimu rasul di ko ñaanal lool yàgg fi te ànd ak wér yàgg ci kanamu njabootu soxna may xaadimu rasul di am mbégte lool ci teewe jataay bi fekk fi suñu mbokki jëwriñ yi nga xam ne yu baax lañ yu am solo di ci jiital baay baay seex Sidi maxtar Cheikh Aw Balla moom sëñ Ibnu Mahfouz Mbàkke ak euh, mbokki taalibe yi ñu fi mbokkal nekk lépp Eh, sëriñ di siyaar suñu amidun di siyaar sëriñ jibi eh, di siyaar bay bay la bàyyi Cheikh Guèye ak sëñ Cheikhouna naa siyaar ñëpp suñ mbokk daara silla di siyaar ñëpp te am mbégte lool ci teew ci soxna may ndax ñun suñu borom dañoo defal tawféex ñun eh, soxna may réesi la parce que ñun ñooy doom yi ñi ñuy wax saa bàjjan doy na sëkk jigéen ñi mu yar former leen jàngal leen ca daar ja ñu doon jur may yooyu ñu doon wax saa bàjjen eh, waaw ñooñu ñooy suñuy wayjur kon boog eh, dina dina dina teew fii loolu témoignage témoignage la bu mag ci ñu wax ne soxna May réussi na mission ci bi ko wayjuram bu tedd ba dénkoon mu Xaadimu Rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa ndax eh, ku suñ borom taw féexale lu tey ne laylatul xadar fu ñu ko tuddee ci àdduna ndax laylatul xadar jiitu na fi ci saayir di ko soxna may waaye ci kaw suuf si ñuy dox fu ñu ko fi tuddee rek xel mi ci soxna may lay nekk kon loolu dooy na ci liggéey te soxna may suñu borom defaloon ko taw féex joo xam ne ñun ñi nga xam ne yàlla dañoo defaloon taw féex ñu nekk yaroo ci moom jàngee ci moom màgge ci moom bëggu alxuraanam gi nga xam ne nekkoon na ci moom ñun ci tuut tànk lañ ko xamoon ndax bi ñuy jàng yàlla defoon na moom mu ñu doon saytu ba biñ àggee ci wàcc alxuraan mu ne ah mahfuusa sama mahfuusa ke la ca war lépp maa koy def ba nga xam ne xéewal liñ ca doon def moom moo ko yónnee def ko ba woolu sax mahfuus mu sëñ Modou bu sa jàng maa ngi koy ziar lu bari sama mbokk ndongo daara moom boole kook ñun ñu ànd ca daara yi Baye Mbaye Sylla di ñaan la yàlla yàggal ko fi wéral ko fi wéral ko ba fa la jànge ba wattu alxuraan ba bind fa ay kaamil nga xam ne soxna moom alxuraan lu ko ñoroon la lu mu amoon yitte la te ñun xam nañ ci seet te suñ borom defaloon na ko muy koo xam ne ku am yëg la ci nit ku xam àdduna la ndax gisoon nañ euh, li ñuy doon doon ay tout tànk fekke nañ ni mu jaxase woon ak ñi nga xam ne ñoo jiite woon réew yi ci waxtu yi mu fi nekkee gisoon nañ diggante ñu am ko tegoon daan ko déglu ci lu baree baree bari mu doon nekkul woon ne soxna la rek du participer ci développement dëkk bi waaye bokkoon na ci ñiy parti bi ñiy wax seen xalaat ci liy doxal réew mi bokkoon na tamit ñiy jëf ci liy liggéey réew mi ci wàllu mbay ak yeneen xeeti liggéey yëpp kon kon daal soxna May moom ñun ñu ngi ñaan yàlla fayal ñu ko di ñaan suñu ba suñu waajuroo sox soxna Bali Mbàkke moom tamit nga xam ne suñu jur la yàlla na yàlla yokk leeram ak di ñaanal tamit sëñ naa Mbàkke sëñ Isaaxa Mbàkke suñu waajur fi jóge bu yàggul nag soxna Modou Faati Xari ku mos a dem kër soxna may rek xam nga ko fa ku taxawoon ak soxna may la ku amul ak yëg la ci ñun la ñu ngi koy eh, ziar di ko ziar suñ sang ba soxna Astu Mbàkke Baali di ko ziar Cheikh Abdou Mbàkke Baali di ko ziar mbokki jabootu soxna may gépp ndax ku mos a dem kër soxna may rek fekk nga fa soxna may Modou Faati Xari jibi ndaw mii nag il faut mu wax dara ndax jibi mii yàlla dañu defal tawfiix ñu yarandoo ñoo màggandoo bi ñuy xamante mën a am amuñu fukki at yàlla boole ñuy ànd ba tey dara soppiku ci kon nag di rafet lu jataay bi di ñaan ak laylatul gi yàlla def ko mu gën a tawfiix ci laylatul xadr gu fi mos jaar waaleykum salaam wa rahmatullah loolu te bëgg sëriñ bi kon sëñ eh, sëñ Cheikh xam ne dafa benn kii bu mu bëgg ñu xer ci daayir yi xam naa lu tënku lay doon rek ndax waxtu yi teg na 10 minutes te gaañit wala ñu jëm te mhm. yi ndeysaan. daayira yi dañ ciy jukki rek bu dee ci Touba sëñ Njaga Faal nga xam ne mu ngi ci Daaru Manaan kër sëñ Bud Mahfous gi ci Daaru Manaan daayira boobu moo ko jiite ak ak soppe yi nga xam ne nag ñu ngi dëkk mag yàlla te so soxna Fatou Mbaye jiite leen euh, su ko defee ñoom itam ñu ngi leen di soññ ndax soppe soxna may lañ yoo xam ne naka jekk dañuy ñëw man géej tarkala di di di di di di soññ waat nag mm-hmm. sëñ jàmbaare ak sëñ Ousmane Samb ndax lu jëm ci daara kër gi rek a dem ci jàngat mm-hmm. jërëjëf jërëjëf Baye Cheikh. amiin amiin amiin. tubaarkal jërëjëf jërëjëf Baye Cheikh jërëjëf jërëjëf. jërëjëf Baye Cheikh ñu gërëm ko bu baax a baax bis baa ngi noonu mu nekkoon plateau spécial laylatul qadar sa njëriñ bàyyi la nga tàggatoo eh, xanaa di jox nit ñi alxamis eh, dig daje incha allah eh, waaye foo ay mën a di cat it ngay jàng alquran di ñaanal soxna si waaye di ko ñaanal ci lim doon dàkku ci bis boobu di ñaanal as Mahfouz suñu borom yàggal ko fi loolu tam wér di ñaanalaat sëriñ Cheikh Abdou Mbacke Cheikh Abdou di ñaanalaat soxna Assou Euh, ci taxawaay bu am solo bi kon alxamis lay doon incha allah euh, foofee ca euh, Touba ñi ngi ziar baax sëriñ mun Muntaxa Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Mourtada di sama sëriñ ak sëriñ Mourtada si la sëñ baa ngi naan ma sëñ waaye sëñ bi yow jumaa ji moom noppi rek naa la ci defal liggéey xam ne benn lay doon maa ngi koy ko ñaan yàlla defal ko di gërëm sëñ Baye Cheikh Baye Cheikh Sidi Mbacke moom sëriñ Modou Mahfouz mi nga xam moom la ñu jataay bi sëriñ Mourtada Silla boo Marème sama xarit maa ngi koy sëriñ Modou Maxfo Silla ñu ngi koy ziare di ziare Baye Sill ci waxtaan wu am solo yi waaye Baye Cheikh mi nga xam ne euh, Baye Cheikh Gueye téere euh, baarakallah bu ñu am mbégte baax ci teewaayam sëñ Cheikhu naa ndaw mii nga xam ni bakal la euh, sunu wëllëre la ndax sunu xarit yu bari ñu bokkal fële ci koñ ba ci daayira bi lañ bokk ñëw te ànd na mun ci wolofa di soxna may munatu yi di gërëm sëñ mbàkki Mbodj ca réalisation bi sëñ Dame sëñ Atman sëñ Mansour Gueye sëñ Pape Cheikh Bey ak sunu wëllëri bu baax wi ak mboolem ñi doon topp télé bi eh, soppe yi soxna ma yi tubaarkàlla ñëpp a ngi yónnee ay bataaxal di rafetlu jataay bi waaye nag ñu leen di ñaanal ñun tamit yàlla defal leen tawféex ñu bàyyi seen jibril mu tàggatoo ñu jox leen dëgg daje incha allahu taala ak xamis ak jàmm ca eh, Touba ci bis bi nga xam ne ni ci la ñuy fàttaliku soxna ma mun Maymunatu Mbàkke bintu Xaadimu Rasuul di ci sofaale jëfam jëm amoon yéene eh, ci laylatul xadar di ci soññu mbokk yëpp ak wëlër yëpp ak am di jàmm yëpp jërë ngeen jëf mm-hmm. jërëjëf suñu am tàggoo bi moom xam naa dama koy may suñu seexu nag mhm. mu defal ma ko ndeysaan ñaari ñaari bayit ci ci soxna may mhm. euh, su ko defee ñu yëkkati jataay bi di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp mhm. tey ñaan rek suñu borom tax ñu ci barkeem te yóbbu ñu ci bis baak jàmm sant tey ñaanal bu baax baax sëriñ Cheikh Abdou Mbacké ci taxawaayam ziar Cheikh Mouhamadou Mahfouz ak njabootu soxna may gépp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey jéggluwaat kon sëñ seexu naa rek ñu bàyyi da nga tëjal ñu jataay bi yàlla di jox seen moo jara xam di roy ci moom rafet ji koy Seex Muntaxa la yàlla tagge Moustapha digle ñu roy ci Moustapha la def ci seyxi muntaxa jikkoy nabeyu muntaxa sëñ Momar Anta Sali rek la tàbbi ci loxol noonu yi waaw juróom-ñetti at géej gi yu manqué tuuti juróomi at من القدير بما قدرمت من عمان وهو القوي الذي بالجود متصف أبغى حياتي باق لا انتهاء له حلا وهبا بما يرضى واتصف ناجيت وادعو في الآي محتويا منه قبولا به المحبوب ينكسف ناجيت برا غنيا مغنيا وقدا للحاجة حاسب سيء عابو الحصف جلد القصائد للواب أذكره بها ومن فيده في سوق يعترف زيني ثلاث